yàkkamti nañoo dégg kàddoom ñu nit yàkkamti nañoo xam la xew foofe ca Tiwaawoon ca jumaa yi Serigne Babacar ca tëccal burdu ba Oustaz Alioune salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bismillah ñoo ngi lay nuyu Oustaz di la wax euh, euh, bàyyi la nga te ak auditeurs yi albidaaya yi. bismillahi rahmaani rahim wa yassir amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli maa hmm. ngi leen di nuyu sëñ Mbacke ñëw comme ko daan tey la ñuy tëj euh, tey la tey la ñuy tëj burdu bi tabaarakallaahu imam ñang euh, moo doon def waxtaan Ousmane Ousmane ñang mm-hmm. di waxtaanal nit nu ak di leen firil buntu bi nga xam ne mooy buntu bi mujj ci burdu muy buntu fukkeel bi yaa akramal xalqi mm-hmm. nag jeexal na nii tabaarakallaahu li ci teg xam naa mooy sànni ay baat ak sikartu mm-hmm. euh, taxawal julli door nag ci li xam ne mooy gurdu bu bu mujj bi. Mhm. Ah, boo ñu demee ci saw yi ba ñoom ña nga doon di je di di jeexal. dinañ nañ ko naan da nga ci gurdu ba jeexal ba tàmbali waxtaan. Mhm. incha allah subhaanahu a taala bu subaa bu ginnaaw nag ñu dem ci stand course. Mhm. fa lañ joxe gàmm bi. ñu ko daan a nag ci kër Mokhtar Cissé ca fële ca Daara sax. danañ ko defaat bu saabu yàlla bu bu ginnaaw subaa ci àjjuma yi. Hmm. def fa waxtaan ba ñu fa daan hmm. daal la ñu tollagum sëñ Bakk. macha allah am na solo oustaz gannaaw bi ñu leen masawoo coona euh, nu ngeen fekketi waa woon. waaw nga suñu bàkkee gaaw gi fees daf daa fees dell baadu. moom daa mel ni tey la gàmmu gi waaw. fees la hmm. daal fees na dell jàkk yeeg jumaa yi. daal fees ñu bari jël sax moom la ñuy fi nekk. est-ce <laughs> est-ce que yéen a ngi foofu ñëwoon nga fi defe naa ca ubbital burdu ba demoon fële ca euh, ca zawiya ba tey nga ñëw ci tëjtal burdu bi foofu ci jumaa ji euh, man jàngat ngay def ci tijjital burdu bi ak tëjtal burdu bi. waaw tijjite gi dañu ko defoon fële ni nga ko waxee léegi ci zawiya moom Cheikh Al Hadj Malick fa sëñ Babacar Sy nekk euh, Mansour. alxalifatul aam moom fa lañ ko defee woon. Mhm. ci am sa ko sakku bi si waxtaan ci waxtaan bu am solo bi mu ko jeexalee dénkaane ay dénkaane def ay orientation mhm. ñu continué mbir bi nag ba tey ji muy muy tëj tey. Mhm. Euh, ñu ko daan fekkee si fii jumaay sëñ Babacar Si. Mhm. Mansour daan ko ànd ak euh, suñu wax ba Hadj Alamine. jamono yi nag sëñ Pape Malick euh, di ko jiite ak ñoom Cheikh ñu mu koy àndal tabarakallahu ci lañu ñu toll nii waa COSCAS ñooy organiser nit ñi toog ci jàkk jeeg. ci la ñu nii ak def ay. ñaan. Mhm. macha allah loolu am na solo oustaz xam naa sax euh, position bi nga nekkee ci biir jumaa ji tax na duñ la mën a téye lu yàgg waaye ci biir loolu itam euh, euh, bu ñu waxee burdu dañ ciy waxaale message bu am solo boo xam ne da ciy jàll ci abyaat yi nga xam ne moom la ñuy woy ci discours yi nga xam ne moom la kilifa yi def bu noppee waaye ren dañ cee seetlu lu mel ne benn yokk bu ci am te tàmbali woon ci at yële mooy bis bu set bala ñoo burdu ñu jox ab thème kenn ci borom xam yi dëkkee ci dëkk bi te bokk ci yoon wi. ñu ñëw indi ci ay exposé yu ama am solo man njàngan ngay def ci yokk-yokk yooyu dëgg la sëñ Mbacke loolu boo demee ci saaw yëba dañuy bordu ba noppi door koy def boo hmm. ñëwee fii nag dañ koy def ba noppi door ko bordu hmm. hmm. nga xam ne bunt bi ñuy war a bordu tey dañ koy waxtaani firil ko nit ñi wax leen li muy fir ba noppi nañu door daal tàmbali li nga xam ne mooy bordu bi loolu nag euh, mubaadara la bu am solo boo xam ne bii dafa cee xew léegi te am solo lool. Mhm. ndax bu njëkk di ñëw rek euh, zikkar boobu jeex ñu jàng bordo bi daal di waxtaan dem. Mhm. léegi nag bunt bi dañ koy firi bu dee fii ba noppi dox bordo bu dee ci zaw yi ba noppi dañuy bordo ba noppi doo jox ken mu firi mu firi bunt bi. ñu mhm. lañ koy defee léegi te nag solo lool ndax. xam li maamul bu sëri di wax am na solo lool mhm. ndax soo jëlee buntu tay bi mu nga xam ne mu ngi ko tuddee almunaajaat ak ardul xaajaat mhm. mu tàmbalee ko ci akramal xalqi man lii maa lii man alus fii siwaaka mhm. mooy yow mi nga xam ne yaay ngeen ji bu ëllëgee bu yàlla tàmbalee di fayyantu ci nga xam ne ñoo ko doon tooñ boo mu fu may làqatu fa du yow a amu foon làq loolu yow yonent bi waaw fa inna min juudika dunya wa darrataha wa min ulumika ilma nafsi wal qalam mm-hmm. ilma nafsi wal qalam mm-hmm. donc loolu ajaat yooyu nga xam ne moom lu imam Busiri def mm-hmm. teg ci ay ñaanam wala tuuf bi daan nangam nangam daa am solo lool loolu nag fi ñuy firil nit ñi teg leen comme leer naa ñu ñu doon nag liberté am na solo ndax xam ko am na solo. mancha allah jërëjëf oustaz xam ko am na solo waxtaane ko it am na solo euh, burdu de ñaare day jeex tey bu subaa ñu nopp lu door a ñëw ci gàmmu gi. Euh, nga xam ne kon weer wi euh, gàmmu gi mooy bi bisu fukkeel beeg ñaar di bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam gane woon àdduna waaye li ko jiitu lépp daa mel ne waajtaayu gàmmu la loolu lan moo nekkoon lenn ci philosophie bi ak nan lañ koy comprendre tey. jërëjëf mooy xam nga ñiy bind wax ni. Mhm. yonent baa judd bi fii ban fan bu njëkk bi ne ñaar ñi ne ñett ñi ne ñeent ba àgg ci juróom-ñeent ba àgg ci fukk. fukkeel ak benn nag mu ne gisul benn téere ci wax ne yonent judd na ci. Mhm. mu ne kon nañ ko seppi teg fële. Mhm. daal di ñëw ci fukkeel beeg benn. Mhm. fukkeel euh, muy fukkeel beeg benn fukkeel beeg ñaar nag ñu def ci nga xam ne mooy gàmb gi. Mhm. ni mu ko daan defee nag mooy xam nga bu njëkk booba daanaka mën nga ne amutoon ay région ki département. Mhm. li mu amoon rek mooy euh, ay barab yoo xam ne daal dañ ko séddal woon mu nekk fukk. Kajoor ak Siin ak Saalum ak Bawal ak yu dem ni ki yooyu. léegi nag ñoo daan ñëw di ko fekk ci gàmb gi nag leen di jagleel guddi gu ne mu jagleel ko ñenn. mën caa waxtaan ak ñoom wax laaj leen la xew seen barab la mm-hmm. ñuy def yan jafe-jafe la ñu am ndax njàngale ma nun la ndax jigéen njàngale sëy ndax jiw ya baax na ndax nawet baax na yooyu yëpp da ko doon waxtaanee. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu nag bu ñu delloo bu ne ñu del siwaat nga dégg ñu naan génn góor génn dëgg génn guddi waaw macha allah loolu de am na solo loolu oustaz eh, xam naa fi nga nekk ci biir jumaa ji moo tax xibaaru daara ji am naa ci ay tomb yu ma bëgg ñu jàngat ko mooy ñëw gi président ñëwoon foofu ak yi ci aju waaye jombut ti kanam tuuti rek boo burdu bi jeexee gannaaw tey la guddik alxames dañ koy wéyal boo génnee ci jumaa ji rek ma jëlaat la fekk nga gën a eh, toog toogaay bu baax eh, ñu gën cee waxtaan su su ma génn naa la def signe allah ne xam nañ bu baax a baax boo dendeek aw nit ak biir jumaa ji doo bëgg a déranger waaye ci kanam tuuti incha allah. jërëjëf jërëjëf Oustaz Alioune Sall ñu ngi koy jaajëfal baax te di ko bégee di bég ci moom Oustaz Alioune Mbaye it ma nga foofee ci Tiwaawoon ci kanam tuuti danañ ko xooli waaye ma dégtal leen jamono ji la nga xamante ne mooy xew ci biir zawiya Cheikh Sidaaji Malick Sy radiyallahu anhu te mooy burdu bu am solo ba nga xamante ne ni moo fay am jamono ji ña nga toog di jàng nekk ci buntu bu mujj bi nga xamante ne mooy buntu burdu bi ni ko Oustaz waxe Eh, buñ ca noppee itam war a dégtal leen waxtaan wi nga xamante ne nii moo fa war a am ci karam tuuti lay doon ñu dégtu la nga xam ne moo fay amee jamono jii te ñëwaat. على حبيبك خير الخلق وجيرتنا وكلنا سيدي للعاف مفتقرا مولاي صلي وسلم دائما ابدا على ابيك خير الخلق كل قد أتينا ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر laa yubxi wala yasaru loolu mooy bàyyi ko ca zawiya ba ñoom tàmbali nañoo burdu ñu delluwaati waa woon fekk fa alxaaji Oustaz Alioune Mbaye alxaaji Oustaz salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw Ima Ali Ima Ali yaa ngi ci waawoon fi mu ne yooyu itam. waaw waaw waaw ngi fii waawoon. aha naka foofu fan nga nekk ci waawoon fi mu ne. waaw maa ngi nii ci jumaa sëriñ Babacar Sy radiyallaahu taala anhu. Euh, burdu bi nag comme ni nga xamante ne noonu lañ ko defee dafa am ay coppat yoo xamante ne am na ci. Mhm. mooy bu njëkk xamal ne daan jàng burdu ba pare door a firi. Mhm. lu mu guddi guddi ñu door a tas ci kër yi. Mhm. bi yoon nag euh, ci innovation yi nga xam ne am na mooy dañuy firi burdu bi ba pare mm-hmm. euh, leeral ko mu leer naññ su ko defee xam li nga jàng mm-hmm. xam bunt bi fu mu toll ñu door a ñu door koy jàng dëgg la Eh, ki nga xamante moo doon waxtaan nag léegi mooy imaam eh, imaam Moussa Niang. waaw di borom xam-xam di ku baax koo xamante ne ñëpp xam nañu ko ci xam-xam ak lewet. tubarkale mhm. loolu doon waxtaan suñu mbag. Mhm, macha allah loolu de am na solo lool eh, yaa ngi foofu ci jumaa yi sëñ Babacar melalal ñu jumaa ji ñu lay dégg ci rajo bi ñu xam fi ne nan la décor bi mel ak mbooloo mi nekk. jumaa ji mi ngi ci kanamu ci daanaka mu ngi ci kanamu kër sëñ Ba Kekke mhm. ci kanamu Zawiya ba mu ngi ci diggante jumaa ji nga xam ne jumaa mhm. jumaa ji nga xam ne moom tabaxal boppam ci loxoom te tiwil yi nga xam ne mooy tiwil yi jëkk mhm. yi xam nga suñu dàkkee jumaa yi si daxaaj maa jooju mag ñi seen intellectuellement ak seen xam-xam xëy na bu doon tubaab la dañ koy jël def sa œuvre waaye su mel ne sëñ Aadi Touré ku mel ni ci nga xajma ci wàllu ilmu nujum muy astronomie. Mhm. ak ci wàllu technicité kenn dabu leen ci. Mhm. jumaa jooju nag moom moo ko tabax ci loxoom teg ci ay civil booba léegi mille neuf cent jubleen ba léegi la woon tey jumaa jàng ni teg ci dara ci moo tax bi ñu ko defaree dañuy bu kenn laal ndax man ñu bari julee nañ ko wax nañu mag ñu bari bari ci réew mi teg ci xajma yi mu ànd fa ñoom julee fa ñoom. wala am am ay ñëpp ak ñeneen ak ñeneen ci Sëriñ Tuubaa ak ñeneen ak ñeneen doon tamit ñu baax ñëpp ci ñu ci ci ci jumaa jooju di gën a wala par exemple suñu baaba jot nekk nga xamante ne jumaa bi ñii suñu baaba ci ñu àdduna la dafay jeex dañ ko doon suñu baaba ci tabax wala ñu nekk lii tey ci parce que ñu jàng pour ko kooku ñu dëgg mooy mbay doon la mooy super super ndax allo allo waaw dañoo commencé ah mane ndax dañoo commencé jàng burdu bi wala tàmbaleegul. waaw dañoo commencé si kër nii. ah dañoo commencé si kër di di waaj a Mm-hmm. waaw dañu commencé si bu ñu commencé si kër nag yi dañu noonu baax na ginnaaw yaa ngi may dégg danañ mën a waxtaan wi jumaay Serigne Babacar la wax ak sawiya Cheikh Sidaaj Malick radiyallahu anhu kon ñoom ñaari yëpp ñaar yu taarixee lañ loo ñëwale ci ñaari barab yooyu seen i taarix maanaam seen i cosaan ak euh, xeetu bu ma nee ña burdu ca sawiya ba wax ne ña ngay burdu ci jumaay Serigne Babacar. waaw Serigne Babacar Sy mille neuf cent cinquante quatre wala cinquante jëm mm-hmm. côté woowu ci lañ ko defar nga xamante ne booba daanaka mën naa ne nii suñu seex nii ci taxawaay ñu yàlla mm-hmm. ko ñu gërëm di jël ko dugal at bi gën a kawe mm-hmm. eh, bokk na ci taxaw doon xeex ba jumaa jooju taxaw Mm-hmm. nga xam ne ko ni sëñ Babacar di laaw taw li mu daj ci kër gi ak li mu mu utoon njaboot Xaji Maalik léegi yow nag suma yoo xamante ni njabootam ñu ngi yar ñu jàng am xam-xam ñu mu yar ñu ngi ko ñu kër dañuy gën a gën a la jege téléphone bi tuuti oustaz gën koo jege tuuti téléphone bi mu gën a leer waaw voilà baax na léegi de. baax na waaw baax na. Euh, waaw dama ne tey moo doon xalifa bi nga xam wuutu Euh, ci xam-xamam ak cëriñ kenn werante wu ko waaye suñu Moustapha si Diané tam di taawam dañ bokk jëfaat waaye suñu Mansour borom daara ji ñoo ñëpp dañu njaboot seen Babacar lañu tey mérite na seen Babacar ji am juma wala mu am daara joo xamante ne nii tey njaboot gi lañ koy jullee ndax tey jaawoon benn juma rek xajatu fi benn sawee rek xajatu fi waaye wax bu nekk tey dëkk bi ni muy ni muy màgg ci nit ñi ci dëkkee noonu la tey euh, jumaa yi war a yaatoo noonu la tam daara yi war a yaatoo ci gis ci sëñ Cheikh nag ñu am sëñ Bara Gaye génn àdduna ci la taxawal jooju la jumaa euh, njaboot sëñ daara yi nga xamante ni yoroon na ko daara kër gi sëñ Abdou yor ko ak daara ñoom tamit sëñ Manko yor na ko ak yeneen daara yoo xamante ni sëñ Moussa Niang ñi nga xamante ni moom sëñ Moussa Niang ñi nga xamante ni moo doon moo doon waxtaan di imam ku doon dem kon doon imam fii yoroon ay daara ci biir euh, Tiwaawan di ci jàngale loolu mooy taarixu jumaa jooju ci lu mën a wax ci suuf jumaa ji ñaar kuréel ak jumaa ji nag kuréel moom taw wax taw yooyu kuréel moo a yaatu jumaa ndax kuréel mën nañ ko waxtaan mbiru politique kuréel mën nañ ko waxtaan mbiru social kuréel mën nañ ko waxtaan mbiru économique kuréel mën nañ ko waxtaan lu nekk waaye jumaa nag dafa am loo xamante ne mën ko faa wax loolu julli rek ak ak ak yeneen ñu ne mel ak jumaa moo tax ci taxaw waaye ci xam-xam ak ci gisoon moo indi loolu ci des waaw waaw allo Oustaz Mbaye waaw maa ngi lay dégg maa ngi lay dégg dégg bu xaw a suufee xam naa bruit bi moo tàmbali di bari ndax li ñuy waaj a tàmbali waaye yaa ngi ñu ñëwal ci historique bu ama am solo muy taxawaayu sëñ Babacar waaye taxawaayu jumaa ji taxawaayu li nga xam ne mooy zawiya ba dégg nga léegi fi ñu daaneele ak Oustaz Alioune Sall ci li nga xam ne mooy burdu damay bàyyi waat nga ñëw ak ñun ci cosaanul burdu ndax ku ne xam na ne du tey waaye lu yàgg la téere boo xam ne imaam Busayri moo ko bind yow ay yooni yoon yooni yoon man njàngat nga ñuy defal ci burdu ak taxawaay bi waaw burdu liñ ci jëkk jàngat si Mbàkke mooy modeste Seydi mhm. bi nga xam ni moom am na ko moom loolu lañ jëkk jàngat ci moom ndax xam nga si laaj ba yu mu téye li mu taal ci ay téere ak li mu wax ci dundu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñaar yi nga xamante ne am na ko bokk na ci wasilatul munaa mhm. bokk na ci euh, balaa budda bokk na ci yeneen téere euh, yoo xamante yu bëree bëri bëri ay ñaan la yoo xam ne na sëkk moom mu laajte ko dëkk bi wala mu jox ko taali bi ngeen ko barkeeloo. xamante ni nagu saar ci toolu saar lay doon. waaye honnête na intellectuel bi seen Hadj Malick moo tax mu jël burdu woo xamante mooy burdu di ko way dëkk fële ca. ne ko séeri waaye ñaan nga nekk ak bu li mu yëkk yéen di ko laaj ci kàddu yu sell. ak li ma ko wax ci kàddu yu ak yu yiw ñaan bi nga xam ne ñaan na ko ñu nga xamante ne bii kenn du saa ak seulement kenn du ci wax na ma ci li mu biddew yi. niir yi taw yi ngelaw yi xobi garab yi puusi géej yi lépp lu ñu toll na nga ko julli te sëlmal ko ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku ñaan kooku ak ñi nga xamante ne mu riche may jël ko nag di ko bankeeloo ndax ci bunt la nga xamante ni mbooleem borom xam-xam yi dañu ci gisu gudd ci yonent yàlla Muhammad sallallahu wa sallam ñii nee nañu premier rabi waaw wala muy premier jour weeru gàmm ñii ni deuxième la ñii ni troisième ñii ni quatrième poos rek la kenn waxul si da xaj maa ñi werante wi rek du ma xañ yoolu màggal guddi génteel Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon naa jël téere bu séeri bii guddi gu nekk ñu gàmm ci jàng guddi bi julli ci nabi sallallahu alayhi wa sallam ne xam nga mawlaaya salli wa sallim daayiman abadan ala xabibika al xayri xalq kullihimi kooku julli ci nabi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne dëkk bi ñëpp ñi àndandoo di julli ci nabi sallallahu alayhi wa sallam ci jàkk yi ci barab yi bourte bourte décentralisé yi nga xam ne lépp salaatu ala nabi ko def ko yoon bi yàlla sallam nee na képp ku julli ci ci man benn julli yàlla julli ci yow téeméeri julli maanaam fukki julli nga julli fukki julli yàlla julli ci yow téeméeri julli nga julli téeméeri julli yàlla julli julli julli junni maanaam junni julli euh, ak mbaggam ak mbagg ba biir àjjana moom moo lay ramm ñëpp si da ma fàggul ñu wowu la yiw fàggul ñu wowu tuyaaba dëgg bi ñëpp di mawlaaya salli wa sallim kooku moom moo ñu ko fàggul mhm. buur da ngi noonu njëriñu buur da ngi noonu du koy def nag ba fukki fan yi ak benn yi nga xam ne kenn werante wu ci mu ne na leen ci noppalu waxtaane waa Saalum mbay lañ ko waxtaane naka seen ngox yooyu fu mbay mi toll fu gerte gi tollu bu dee waa Jolof ñu waxtaanee moom tam commerce beeg yeneen yu ni mel bu dee waa Cap Vert Dakar ñu waxtaane mbirum euh, politique beeg euh, yar njaboot geeg école yeeg mbirum euh, intellectuel mbirum bitim réew ba fekkente ni kajoor la ñu waxtaane euh, mbay moom daal noonu ko doon defee ba ci napp jeeg càmm jeeg yëpp ci da ma di ci waxtaane bu ko defee bu tëne yi ak ñaar yi xam ne moo gën a wér seen ci borom xam-xam yi nii ci la judd moom ci la ci la judd kenn leen diw ko wala muy kaay leen ñu waxtaane xeeru saab waxtaane nuuni yu waxtaane lafat xaaja waxtaane téere yi nga xamante ne moom bind na ko nga xamante ne benn bay rek génn guddi xaju ci Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu loolu mooy loolu mooy li nga xam ne moom la ñu jàppee ci bëgg mhm. macha allah muy lu am solo Oustaz Alioune jumaa jooju nga nekk sëñ Babacar lañ wax ne jumaa yi sëñ Babacar la boobaak léegi léegi mu amub diir euh, noo ñuy jàngatale ndeysaan jaar-jaar yi fi jaar bu yàggut ñu doon gis Serigne Mansour si borom daara ji mu toog foofu di burdu ba mu yàgg ñu fi gis Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin tey seen rakk ji euh, di sëñ Pape Malick war a ñëw burdu si foofu waxtaan a taalibe yi man ngay def ci loolu waaw jërëjëf sëñ Mbacke loolu tam euh, dañuy dañuy gën a gëmaat yàlla rek ci ni kullu nafsin zaa'iqatul mawt hmm. kullu man alayhaa faan hmm. kullu shay'in haalikun sëñ Mbacke gi nga ñetti kullu yooyu hmm. boo ñëwee ren ci gàmmu gi ci ngay gën a gëm yoo xam ne fii ma toog ñu Oustaz Alioune Sall siiwlu ma waaye maa ngi koy seen na la ci kanam euh, fu mu toog di daan jàkkaarloo ak sëñ Mansour sëñ Mansour toog ci côté bi sëñ Abdou toog féete ko ndeyjoor. Mhm. rek yi jorbaat yi ak taalibe muqaddam yi. Mhm. topp ko. jàng moom solo sëñ Mansour bu paree waxtaan sëñ Abdou tëj noonu lañ daan def taan ñuy dem ba yàgg sëñ Mansour mënatul. Mhm. yàlla jël ko yóbbu ko sëñ Cheikh. ñi nga xamante ne ab seexam la rawelu magee te wujul lu may ñetti weer. daanaka moom la moom la ko sëñ Mansour magee. Euh, moom it bi sëñ Mansour di tële daanaka moom fekkoon na moom itam mu tële ndax. koo xamante ne. parce que quatre-vingt-quinze ans jëm quatre-vingt-dix ans jëm kaw seulement dafay yóbbu war ngaa màggat. Mhm. bi muy jël plan boobu ñu koy teg mu nekk xëy journal bi yan boo fekk na wér-gu-yaramam ak euh, daanaka aasam mayeetu ko yu bëree bëri. Mhm. mu def stratégie bu rafet daal di woo suñu ñu ko nag. na ngeen ma dimbali ci njaboot gi ñu nekk benn dimbali ma ci njaboot gi ñu juboo képp ko hmm. bëgg sama bànneex wala nga bëgg sama gërëm na ngeen ma dimbali ci nit ñi juboo nekk benn ñu hmm. si ibnu alaaji abdoulaye da baax ñu ko demal ci jumaa sëñ Babacar Si ko demee nga am na sëñ ba hmm. jël sëñ Mbay jël sëñ Mbay Abdoul Aziz jël Pape Malick Si rakkam nga dem moo doon loxo lay doon di léppam ñu ko demal ci sëñ sëñ sëñ alaaji Malick ba fekk ko fa sëñ ngeen jàng bu dul waxtaan taalibe yi. Mhm. li nga xamante ne mooy borom xam-xam di njool Fuuta yóbbu ko ci jumaa sëñ ba si xajmaa ji ma la doon wax léegi mooy jumaa Tiwaawan mooy borom sooroor bi euh, nga xam ne mooy benn sooroor bi ba ca euh, mu nekk fa di fa waxtaan. Mhm. jël sëñ Moustapha Sy ibnu Cheikh Ahmad Tidiane al alimul allama al fahama al mursid yi ne ko nag yow restel fële ca course ba loolu continué lancé ci ni nga daan wootee. ak stratégie bi nga xam ne moom si def ci saadaat la noonu noonu noonu noonu la mel. Hmm. tey boo fi ñëwee nag gis nañu ñoo ñëpp tey sëñ Cheikh gisatuñu ko sëñ Mansour gisatuñu ko. Hmm. gisatuñu sëñ Abdou Aziz. sànq hmm. bi génn euh, Mbàkke. Euh, sama yaram dafa daw. te dama gis sëñ Cheikh bi nga xam mooy taawu sëñ Mansour. ci génn. toog ci bàyyam daan toog. nga gis Fatou Aïda. nga xam ne mooy sëñ Babacar Sy Abdou Aziz. di taawu sëñ Abdou Aziz. moom dam toog fi bàyyam daan toog mhm. seen rek yi ñoom Moustapha ak Cheikh Tidiane ñoom ñëpp àndoon taalibe yi ak imaam Moussa imaam Moussa ñu ngi doon waxtaane mhm. xale yëpp tawaarka la toog an Touré seen bàyyi seen yëpp Pape Malick si ñu toog jàng kii bi nga xam ne rek wax dëgg moom daal mooy loolu daal boo fekkee démb fekki tey. Hmm. tey rek war lu bëree bëri ba xam ne àdduna lu dara. ku ko jàpp jàppoo dara. wallaay wallaay wallaay wax nga dëgg ko jàpp jàppoo dara moom àdduna ak i soppeekoom ak euh, doxalinu ñàkk solo bi nga xam ne moom lay doxalee ba léegi foofu yeneen ci biir jumaa ji di waaj ju liggéey. ah Oustaz Mbaye ma ne ma ne yéen a ngi foofu di waaj ju liggéey. waaw waaw. bu ñu paree daal di julli gee. waaw bu ñu jullee gee rek daal di dugg nañ ci ci burdu bi nag Mawlaay Salli mhm. bu ñu paree paas si daal di joxe message bi. Mhm. ñu dem nag noppalu ji nag incha allah ba ëllëg. ba ëllëg balañ caa dem waaye ku ne xam na ne Cheikh Sidi Hadj Malick euh, li ñuy faral di wax ne ma nga gane àdduna fële ca gaaya waaye Tiwaawoon dëkk la boo xamante ne nii jamono ko fi indi ni nga xamante ne doomi soxna yu bari def nañ ko waaye tey jii ku ne Tiwaawoon yëpp dem ci moom loolu man jàngat nga ñu ciy defal waa waaw njàngal mi ñu def mooy suñu mbàkkee. Hmm. Alaaji Maalik radiyallaahu taala anhu tànnul woon dëkk dëkk Tiwaawan tànnul woon pour ñëw Tiwaawan. Hmm. dafa wax ci làmmiñam ni su ma yàlla doon taamuloo dëkk mooy dëkk de gaayee gama suul sama ndey saa wàdd wala fa lay dëkk. Hmm. waaye yàlla moo ma taamul boppam indi ma fii ci xolub Kajoor. ma dëkk ci man nangu ko nag ndax moom li ko fi taxoon a ñëw moo du jàng alquran. maa maanaam tafsir alxuraan moo ko fi taxoon ñëw maa ñu fi nekkoon ku ñu wax góor gi Jibril Toop ak góor gi Jibril euh, Guèye ñoo doon firiloo euh, alxuraan ku ñu tafsir Abdou Cissé. Hmm. te jooju jamono muy tafsir Abdou mag mu baax mu bari xam-xam te yiw waaye modeste ci moom itam buy firee mu yëg ci baar daal yëngal bopp bi daal ni ah ñu ne ko lan la mu damaa xam ne li ngeen firiloo billaahi di ngeen gisoon benn benn sëñ bu wax Ma Malick Fa Wade. wallaay mooy gën a efficace pour mën a leeral li ma bëgg a wax nii xamuñu ko yi may faawat ñuy dem dem dem da ba góor gi Mama Joor di doom ci góor gi Gumba Amar moom da daan def ay commerce di jaay ay téere di jógee wakaam googu di ñëw Tëngéej di ñëw fii foofu la gisante woon nag euh, góor gi Jibril Gueye bi mu ñëwee Tiwaawan nag ñu tudd ko Malick mu leen maa ko xam te mën naa naxante moom ba mu ñëw ba mu ñëwee firi rek si eh, gàttalu sa suñu mbàkkee. Mhm. teel a ñu mag ñu ne ko daal dëgg dëgg léegi li ñu bëgg mooy nekk ak ñun rek ba nu suul ba nga suul ñu jébbal nu suñu borom waaye daal bàyyeet la ngay dem daal bëgg suñu ko. Mhm. te daaj may d' accord ci ak ñoom booy dugg ci waawoon ba fi mu ne lool soo ñëwee fi ñu koy kon ba jàkk bala nga ñëw kon eh, eh, ci zawi Alaaji Maalik foofu yëpp ay tool woon yoo xamante ne moom fa la nekkoon moom Seex Alaaji Maalik radiyallaahu taala mhm. di firi nag di jàngale alquran. xam nga borom doomi soxna yi xaw nañ ci sax fii. Mhm. am ñoo xamante ni fii bi mu doon fii eh, ni mu leeree ak ni mu wéree. Mhm. Eh, de déranger woon nañu bëree bëree bëri. Mhm. demoon nañu sax benn juma benn bisu eh, korité. ñuy jiite loolu si Hajj Maalik ba mu jiite koré gi. ñu jiite ba soxna yi nekkoon fay ay nit ñu jox leen ay ndënd ak ci sabab yu wër ko Alaaji Maalik jiite korité nag baam toog xam amul amul julli. Mm-hmm. ba wax ji egg ci nopp ci laaj Malick nekk mag mu yiw te yow. Mm-hmm. daal di jël alal ji bari mbubbu teraanga ji bari ak ak ak xaalis ak suukar te jël jamono. ànd ak géwél bi doon yéena loolu. jàmb ci mm-hmm. képp ko santoon. mu ñëw ni ko El Hadj Malick moo la sol mu ne nga waxoon ne ko mu jiit amuloo julli. boo gënee def jaasi génne ko ne ko na egg lu mu fi baax ñu ñeer ko lu mu fekk na lu mu jaay ñu jënd ko. ndeysaan bi El Hadj Malick egsee mu ne ko lu doon say tàng ko sant ci la gërëm ci la yow mi xam jullit yàlla nangu ak jullit yàlla nanguwul ma ñëwoon doon la jéggalu li ma def bu fekkente ne dafa leen naqari ah ñoom te doom soxna la waaye ay doom soxna du ñu xeex. ci mm-hmm. julli ak jiite. boo mm-hmm. comme dama jàppoon ne war na maa jiite comme waruma jiite nag bële gi ngeen jiite ma topp seen ginnaaw. Mm-hmm. waaye jarul yii ci jiir ci diina ji. góor gi di ko xool rek bu ñu ko yaa gore. Mhm. yaa baax. Mhm. yow li yaa war a jiite. Mhm. Euh, bokk na ci moo tax si Aji Malick moo tax foofu ci biir Tiwaawan moom ko bàyyam moomu ko mel na mbokkam moomu ko moom moo fi ñëw jikkoom ak xam-xamam ak yaram ak tegginam. moo tax dema dema dem ba boo tuddee Tiwaawan rek ñun Tiwaawan bu Seydi Hadji Malick mhm. macha allah euh, Oustaz Mbaye jërëjëf euh, loolu historique bu am solo la boo xam ne ëppoon naa ñàkk a waxtaane ndax dafa am lu mu jàngale lu baree bari ci euh, njàmbaaruk Seex Seydi Hadji Malick radiyallaahu anhu ak ragal yàllaam ak oyofam ak yi nga xam ne moo ci aju yëpp xam naa kon dama lay bàyyi nga ñëw ak lenn ci sa programme programme bi nga xamante ne moom la ñu war a dérouler foofu ci diirub gàmm gi tey mooy tëccal burdu bi gannaaw bi ñu ko tëjee ba noppi lan moo ci topp. waaw jërëjëf sëñ Màkka jaajëfal bu baax a baax fi nañu waaje ñu waaje sëlmal nii. Mhm. léegi nag incha allah naa ko dama lay bàyyi parce que maa ngi u déglu ak oustaz ci xabaaru daara jeeg. am mhm. oustaz pédagogue loo te itam ñëpp ñu ngi koy xaar. Mhm. ci xam-xam bi ak technicité bi ak yarab bi ak euh, xel meeg sajaa bi ko yàlla may. Mhm. ñu bari ñu xaar mu jàngat euh, mbir mi su ko jàngatee rek ñu bari daan ci am lu rëy rëy rëy wax dëgg yàlla. Mhm. donc su ko defee ñun xam naa kon suba ñu jox la rendez-vous incha ci alkitaab. Mhm. bu ñu ba ci digg ba ca jotam daan ñëwaat ak yéen ci yeneen émission waaye guddi gi incha allah dinaa ànd ak maam Momar Seck ci alminbar. ñu jógee ci alminbar nag di yor yoru gàmmu gi incha fekk euh, mu gën a yaatu. Mhm. maa ngi jot nii nga ñëw sax <laughs> su ma yàlla dugalee nga mën a ñëw. Mhm. Euh, moom mooy loolu. Mhm. su defee ñu def ko rek euh, jotaay bu gën a yaatu. incha allah yi fi gën a yi fi gën a kii bu loolu weesu maa ngi lay sant baax dina gërëm baax. jërëjëf jërëjëf Oustaz Mbaye ñun itam ñu ngi lay jaajëful baax di bég lool ci taxawaay bi di bég lool ci yitte ji ak rafetal gi am na solo lool xam naa ñu bàyyi leen jombut bu bu bi jeexee rek boo yëgloo danañ la mën a jëlaat nga tënkal ñu li nga xam ne moo fi xew lépp yow ak Oustaz Alioune Sall jërëjëf imaam lii jamono ji ñu ngay julli gee ci jumaay Serigne Babacar Sy radiallahu anhu ñu ngi nii di leen tubarkalla Oustaz Alioune Mbaye ngi foofu Oustaz Alioune Sall nga fa itam waaye ca euh, fële ca sawiya ba bu Cheikh Sidaaji Malick si radiallahu anhu booba itam ña nga fa di di jàng jamono ji li nga xamante ne mooy burdu bi euh, di ko doxal donte ñëwaguñ ci euh, wàll wi nga xamante ne nii mooy wàllu waxtaan wi ci wàllu jàng buntu bu mujj bi nga xamante ne mooy buntu burdu bi ca lañ toll ñoo ngi leen di jaajëful baax baax yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy topp ñëpp ak di ànd ak ñun ci jotaay bi ca Tiwaawoon dinañ leen ko dégtal ñun ak yéen ak euh, programme mu ba nga xamante ne dara du leen ci ump incha allah ñu jaajëful baax a baax Oustaz Alioune Mbaye jàll delluwaat a baax euh, Oustaz Alioune Sall nga xam ne itam yéen ñuy topp yéen ñëpp 23h jot na ba teg fukki simili ñu daal di euh, wéyal jotaay bi كل ويل مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك ala xabibika xayril xalqi kullihimi kookoy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ne ci guddeem la ñuy waajal ci aw weeramit la ñu nekk di moom mi nga xam ne ñëwam gi moo génnee nit ñi ci ak lëndëm yóbbu leen ci ak leer bisu mbégte la kon di bis boo xamante ne nii amul benn bis bu doomu aadama di bég ci kaw suuf bu war a féete kaw bis bi nga xamante ne ci la yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gane woon àdduna ndax dogoon ko nag ñëwam gii euh, fitna dëgg-dëgg dana am ndax lu jiitu mu doon ñëw kat ëpp sa moroom doole duma moo amoon ci àdduna waaye ñëwam ngi moo taal bi nga xam ne moo ñuy niital ba àdduna di tukki te dootu fayati xul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika fal yafrahu huwa xayrun mimma yajmaun kookoy sallallahu alayhi wa sallam huwa al aadamu innahu bi xaqi al aadami kayfa la wa xad istafaahu allahu ala bani aadam wa huwa xaatimu al anbiyaai wal mursalin arsalahu rabbahu rahmatan lil aalamin moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki gën a màgg ci mbindeef yi mooy ki gën a rëy ci nit ñi mooy ki nga xam ne moom la borom bi tànn ci mboolem doomi aadama yi def ko mu yonent bi mujj ci yonent yi suñ borom yónni ko mu nekk e, yërmande ndeysaan mu nekk mu nekk yërmande e, ñeel mbindeef yépp suñ borom yónni ko ngir mu ñëw génnee nit ñi ci lëndam yóbbu leen ci leer li yuxrija annaasa min azulumaati ila nuur innahu al mooy ki nga xamante ne mooy ku màgg ki bu ñuy wax nit ku mag wala nit ku rëy wala nit ku mag wala nit ku kawe ka gën a kawe ña kawe ñëpp mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba balaa kenn kaweti sax ca kaweem nga ngay sukkandikoo ngir mën a kawe fa ida kaana fi l basariya man yastaxiqu al adama fa huwa muhammad bu fekkee am na ci nit ñi nit ku yayoo ñi naan nit ku kawe la nit ku màgg la nit ku rëy la kooku mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy li nga xamante ne noonu lañ ko mën a wormaale moo tax julli di yayoo ko ameel ko njukkal ameel ko ak bëgg ameel ko war koo wormaal ameel ko war koo wekk ameel ko war koo màggal ameel ko war koo roy ameel ko war koo tiitaroo waaye def ko nag mu nekk modèle bu mag bi royukaay bu mag bi boo bëggee am exemplaire koy teg sa kanam di ko xool nga xamante ne boo ko royee doo juum ci doxaliin kooku mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fii ci àdduna ëllëg yowmal xiyaamatil akbar mooy doon ramm waa kon bi mooy ramm jaam ñi moo ñuy wommat jëmeñu aljanna inna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam yastaxiqu al adama kayfa la wa xad axraja min alzulumaati ila annuur wa hadaahum ila siraatil mustaqim mooy ki nga xam ni moo yeyoo màggal moo yeyoo yëkkati moo yeyoo tiitaroo loolu kat lu yenu maanaa la lu ñu war a gëm la ndax mooy ki nga xam ne moo génnee nit ñi ci ak lëndëm yóbbu leen ci ak leer mooy ki nga xam ne moo ñuy gindi teg ñu ci yoon wu jub wi sallallahu alayhi wa sallam yonent bu màgg boobu yonent bu rëy boobu mbokk yi moom la ñu nekk ci ak guddeem suñ boroom a ko wax maa la yëkkati wa rafaanaa laka zikrak maa yëkkati saw yëkkati foofu la mën a yem foo ne laa ilaha illallah jërul ngay laaj lu ci topp lu nit gàtt-gàtt aliwa boo ko ne lu ci topp mu ne la muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo ci topp laa ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu rek moo ciy topp sallallahu alayhi wa sallam حبيبي كالخير في الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير للخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حصب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم غير منخرم mbokk yi albidaaya tey ñoo ngi ci spécial tëccel burdu bi jokkoon nañu ak Sall léegi ca Tiwaawoon jokkoon nañ fa it ak ki nga xam ne mooy oustaz alxaaji imaam Alioune Mbaye moom itam foofee ca ñoom ñëpp ñu ñëw ñun ci li nga xamante ne nii mooy tëccel burdu bi waxtaan yi nga xamante ne moo jiitu jamono ji fële ca jumaay Serigne ñoom ña nga ca waajtaay wa di waaj a tàmbali fële nga xamante ni mooy euh, zawiya Seex Sidaaji Maalik radiallahu anhu moom euh, ña nga ca njàng ma xam naa ci kanam tuuti danañ fa delluwaat déglu ji kàddu yi nga xamante ne moo fay bàyyi ko te xalifa ba sëriñ Mbay si baaba Babacar si Mansour war koo yëkkati loolu ci kanam tuuti lay doon incha allah danañ fa demaat ak yéen waaye lu jiitu loolu ñu wéel ak yéen jotaay bi te di leen bàyyi waale xel di leen néggandiku waale itam ci taxawaayu am solo yooyu nga xamante ne ña nga fa nekk war cee ànd ñoo lenn ci ay tomb ci dundu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko dundale guddi gi ñun ak yéen ci li aju ci gàmm gi maanaam wax màgg gi màgg ak kawe gim kawe moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba suñ borom wax ko ne ko maa yëkkati saw tur boole ko saa wos waaye ci tagg yooyu da ko wax ne ko wa innaka la ala xuluqin azim yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ki nga xam ne jikko mooy ki gën a mat jikko ci nit ñi ñëpp mooy ki nga xamante ne mooy modèle bu mag bi mooy ki nga xam ne moom lañ royloo sallallahu alayhi wa sallam moo tax moom moomu suñ borom subhaanahu wa taala ca mbindam ya ca njàngaleem mu rëy ma euh, waxoon ñu ne ab royukaay bu rëy rëy rëy ñeen leen ci jëmmam ji laxat kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana man kaana yarju llaha wal yawma al axira yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy seen royukaay bi gën a mag teg leen ko ci seen kanam ci képp koo xam ne yaakaar na ne dana dajeeg man ëllëg yawmal xiyaamatil akbar kon moom xéewal la buñ lay wax dëgg-dëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxal ne rek moom xéewal la gu ñu yàlla xéewaleel xéewal la goo xam ne moo ñëw libéré ñu xéewal la goo xam ne moo ñëw tegaat ñu ci yoon xéewal la goo xam ne moo ñëw niteel ñu ba ñu ndax nit xamul woon boppam lu jiitu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñëw bari woon na lool ñu réere seen bopp lool ba doon def yu nitoo diku yoo xam ne ngëm yàlla ak wéetal ko am kilifa teg ko ci sa kanam te di ko roy loolu rek mooy li la li leen mënoon a génnee ci e, njuumte yooyu moo leen mënoon a génnee ci e, réer googu moo leen mënoon a génnee ci taxawaay yooyu yal na yàlla fayal ñu leen yal na yàlla fayal ñu yonent bi alayhi salaatu wa salaam loolu la julli ci yonent bi e, sallallahu alayhi wa sallam di tekki moo tax ay royukaay yu baree bare moo nekk ci moom gannaaw bi mu nekkee xéewal nga xam ne amul genn xéewal gu ko féete kaw goo xam ne suñ borom defal na ko nit muy ku mat ci àdduna ëllëg yowmal xiyaam muy gën a mat suñ borom subhaanahu wa taala jox ko lépp luy tedd nga ba noppi teg ko ci suñ kanam bëgg ñu roy ko def ko muy ku mat ci jikko def ko muy ku mat ci bind def ko muy ku mat ci jikko def ko muy ku mat ci bind Sëriñ Tuubaa ba mu koy woy da ko waxoon ne ko wa huwa akmalul wara xalxan wa xulqan zahara wal mislu xattu lam yura walan yura fi siyami nee na sallallahu alayhi wa mooy ki gën a mat nit ñi bind ndeysaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa mel ne moo bind boppam xam nga nit bu doon bind boppam bari na loo xam ne bi mu seetoo wokk na ko boor bu ne eh, piis na ko boor bu ne xëcc na ko boor bu ne waaye mënta dañ parce que xëy na ni bakkanam bi mooloo noonu la mel noral ak nooxal ak lépp a ci yem gis koo xamante ne dana jël tul maanaam tusngal def ca bët ya ndax bëgg eh, la ca suuf ñuul gis koo xam ne dana faaru makkiyaasu pexe mu ne dana ko def ndax bëgg yokk ab taaram rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag daa mel ne moo tiim boppam ci këyit dessin boppam ni mu bëgg a mel mu mel noonu jëba na bëgg ab jëm mel noonu la mel lexem ya na mu bëgg ay lexam mel noonu la mel yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, loosam wa na mu bëgg aw loosam mel noonu la mel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànkam ya na mu bëgg tànkam ya mel noonu la mel yonent bi alayhi salaatu wasalaam taxawaayam ba na mu bëgg taxawaayam ba mel noonu la mel yonent bi alayhi salaatu wasalaam doxiinam wa na mu bëgg aw doxiinam mel noonu la mel pant lu ca wéngalu ca maanaam daa mel ne rek nit koo xam ne moo doon bind boppam wa huwa akmalul wara maanaam jàppal ne loo gis ci nit banaan kii lii da koo rafet le wala ak jekk nu muy doxee yonent bi ku gën a le fuuf fuuf bu ñëwee la diw ak a jekkub toogaay yonent bi aley salaatu wasalaam moo ko gën a jekk ab toogaay fuuf fuuf bu ñëwee kii dafa neex nu muy waxee alayhi salaatu wasalaam moo ko gën a neex nu muy waxee fuuf bu ñëwee kii kanamam gi dafa rafet yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko gën a rafet kanam fuuf nga xam ne bu ñu lay wax ku gën a lépp ñëpp mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom rek mooy ki nga xam ne moo gën a lépp ñëpp borom bi subhaanahu wa taala jox ko tedd nga ci askan amut ci ay askanam lu muy lañ bat di ko xeeb léeg-léeg nit dana ne bu doon mooy tànn fu muy juddoo wax dëgg yàlla du ma bokk ci askan wi ma bokk wala wala wala wala wala mu am ci biir askan wa ku cay def naka suudu noonu waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay maamam askan wi mu jaar eh, askan wu rafet la woo xamante ne jikko lañ leen xamee woon taxawaay lañ leen xamee woon góor góoru lañ leen xamee woon kon borom bi moo ko tànnal loolu waaye noonu la ko tànnale jikko yu rafet defal ko muy koo xam ne ay jikkoom koo gis mu rafet jikko bu ñëwee la diw dafa tabe moo ma neex ci moom ndax tabam gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko gën a tabe fuuf bu ñëwee la diw dafa lewet ba tax nga naw ko ci lewetam gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo gën a lewet ñëpp sallallahu alayhi wa sallam bu ñëwee diw dafa jàmbaare ba tax nga naw ko ci njàmbaareem gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo gën a ëpp ñëpp ak njàmbaar sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne dañ daan jaaxle bay làqatu ci ginnaawam sallallahu alayhi wa sallam bu ñëwee la diw dafa am xel moom kat xel mi daa rafet bu la conseillé rek nga kontaan alayhi salaatu wa salaam mooy ki nga xam ne mooy borom xel mu mat mi waaw mooy ki nga xam ne borom bi moo ko jox kattan buñ ne la diwkat moom daa amuk dégg nangam nangam yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo yor sixatul fahmi moo yor dégg gu réy ga moo yor fataxa fasaaxatul lisaan mooy ki nga xam ne moo yor làmmiñ wu feccee quoi sallallahu alayhi wa sallam borom bee ko defal mat googu loolu jagle la goo xam ne daf koo defal ci ci yu mel nii dañ ko cee war a jàng détaillé ko benn par benn diine ja mat xam-xam ba mat lewet ga mat muñ ga mat dëddu ga mat cant ga mat maandu ga mat oyof ga mat jëllale ga mat baale ga mat tabe ga noonu la mate njàmbaar ga noonu la mate kersa ga noonu la mate sàmmonte ga noonu la mate dal ga noonu la mate am eh, eh, am nan lañ ko waxeeti xëy ba maanaam doon koo xam ne koo gis respecté ko noonu la mate doon ku bari ne noonu la mate rafetaloon dëkkandoo noonu la mate ci moom moo tax amut jikko ju xamante ni nii alayhi salaatu wasalaam mëtlewu ko jikkoom yépp mat moo tax borom bi di ko xool di ko xool di ko xool ba mu yàgg mu dëggalal ñu ko ne ñu ne ko wa innaka la ala xuluqin azim jikko moom yaay ki ku gën a mat la ñëpp sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne waxaguma bind baag yooyu waaye jikko ci lii yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ki gën a mat la ñëpp jikko ñu war koo roy ci loolu yëpp noonu itam la ñu gën a léppee ci lépp ndeysaan gën a rafet jikko gën a rafet bind waaye am askan woo xamante ne askan wu ñu tànn la askan wu ñu tànn la wu ñu tànn la ci aw doxalin jële ko ca ibrahim jaar ca ismail ba ba ngay ñëw ci adnaan ba ba ngay ñëw ci abdul mutalib ba ba ngay ñëw ci abdullah ma ko meññ ñoom ñëpp nasabun sharifun wa aba tahiruun wa ummuhaat tahiraat fa huwa min samimi qurays allati laha qadamul ula fi saraf wa ulul makaana bayna al arab kookoy sallallahu alayhi wa sallam wa innaka la ala xuluqin azim moo tax suñ tubaa ne woon ko jigéen dootu jur doom ju mel ne yow lam yabdu mislal mustapha muhammadi sirran wa jëhran fil baraya samadi mooy sallallahu alayhi wa sallam ahmaduna rahmatuna xaamiduna nihmatuna mahmuduna farhatuna wal juudu musri diyami وعد وزني مثاقي للجبال كما يليه قطر جميع الماء والماء والبذر ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير ذكر الخلق كلهم وعد محاواتي guddi gaa ngi noonu spécial albidaaya bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam tombeeg waajtaayu gàmm gi di taaxeerlu waale tiwaawoon ak la fay jolle ànd ak yéen ci waxtaan wi yéen it man ngeen a ñëw bu leen neexee ci téléphone bi ñu door ko léegi ndax nunu neen la kenn ku nekk feeñal ay yéeneem ci yëg-yëgu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ñëwee ñu waxtaane ay jikkoom waxtaane li tax ñu gën koo bëgg ak li tax mu gën ñoo jege moom sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di xaar ci 33 800 825 18 30 Abdullah ibn Omar nee na maa raaytu afja wala abrah wala abxara wala ajwada wala arda min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dootuma gis mukk ku gën a jàmbaare yonent bi alayhi salaatu wasalaam dootuma gis mukk ku gën a tabe yonent bi alayhi salaatu wasalaam dootuma gis mukk koo xam ne da nga koy gis di ci moom ni nga doon bégee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sang ba ca Madina euh, ku dëddu àdduna la woon dëdd lool lool lool lool lool lool lool moo tax euh, yu baree bari mësu koo sonal ndax dëddu googoog loolu mu regle woon ci boppam ba noppi salaamaaleykum. aleykum salaam. bisimilah. Oustaz maa ngi ziar baax a baax a baax. jërëjëf yal yàlla nangu ziar. di rafetlu waxtaan yi ak jotaay yi. alhamdulilah ci jot a def lépp ci guddi Yonent bi. jërëjëf. man laa nag seen mbokk maam tey gis naa dugg lool lool lool. bisimilah tey kay damaa bëgg ku dugg rek ne saraax ci Yonent bi ñu waxtaan ci moom. ah man de dama doon wane sama jërëjëf guddi gi nañ ci. jërëjëf yàlla kontaan nañ. jërëjëf jërëjëf kon kon jullil ci moom ma continuer. waaw <laughs> ah, kay ñu jërëjëf macha allah mi nga ku ñëw rek euh, wax dara ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam damaa bëgg a bokk ak yéen waxtaan wi bu ko defee ñu koy joxante. Euh, alxaaji Thiam mm, ndeysaan sama xarit maa ngi lay nuyu di nuyu waa France yëpp di nuyu Cheikh Omar soxna Ndeye Camara maa ngi lay siyaare Adja bu taal ak ma madame Dour salaamualeykum ñooñu yëpp ay soppe yonent bi lañ bismillah salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi ziar bu baax. jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. xawsu jaw kastoor. xawsu naka waa kastoor. ñu ngi lay bu baax di rafetlu jërëjëf jërëjëf jaw kontaan na terañ bu baax a macha allah jërëjëf jërëjëf. ñu ngi ziar bu baax. jërëjëf jaw naka waajtaayu gàmm gi. waaw ñu ngi ci de ñu ngi ci ñoo ngi ci fan yi mbégte yi de. di dundal di ko dundal ñi daan dund yonent bi ñoom fan yi bu daan ñëw ñëpp dañuy xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo xew ak sa ak sa ndeysaan yow nu euh, xama looñ ci indil <laughs> tax siimahoo bi sunnati yaquduna lil jannati ndeysaan di yës di yaadul minati li ndeysaan loolu la Maodo wax wala boog loolu la Sëñ Tuubaa wax maam borom Tuubaa ah, waaw Sëñ Tuubaa nee na nañ ko màggal te ko ci sunna mu womman ñu yóbbu ñu aljanna ak sa ak sa Seex Sidaaji Maalik ne ala azimu laylal wilaadati xisbatan isa lam yakun naxwa alxaraami xudoolu ñoo tolloon fréquence <laughs> mag ndeysaan. macha allah li ustaas bi wax. walaay ndeysaan walaay ndeysaan. jërëjëf ustaas Mbacke kontaan nañu bu baax. jërëjëf yonent baa ngi noonu sallallahu alayhi wa sallam mësta wax lu dul dëgg moo tax da doon wax naan ana nabiyun laa kadib ana ibnu Abdul Muttalib salaamaaleykum. kooku génn na waaye keneen a ngi ne di yërndu ci suuf bisimilah salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah bisimilah. sëñ Mbacke. waaw yaaram. maa ngi lay ziare. yal na yàlla nangu siyaar. maa ngi lay ziare ci guddi Seydina Muhammad. sallallahu wa sallam. di ziare bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. yal na yàlla barkeel. amiin yaa rabbal alamin. fii ñi ngay wax taximaan sëñ Mbaye taximaan. mbay taximaan bisimilah Mbaye. waaw ñu ngi lay bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf ay ca ay ca loo looy indi waxal dara ci yonent bi door dem tey moom moom guddi gi de. yonent eh, bi moom isaay ñëpp ko kenn koy mën la ala xuluqin azim wallaay. ndeysaan ndeysaan jërëjëf jërëjëf ñu nit bëgg nañ ci siyaar bi ndeysaan. aji dooru si la maa ngi lay nuyu di rafetlu sa message caatu xam yow it naka noonu soppe yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu baree bari ñu ngi yëngu fañ nekk donte dugg gi mën naa jafe ci ñoom waaye maa ngi bëgg ci kobas yooyu ak joxlante nuyoo yooyu salaamaaleykum asalaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah. waaw Serigne Mbacke. waaw. ñu ngi bu baax a baax a baax. jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. ndongo lu xew a xew kii dafay dala wooye fii ci Touba Kër Niang. waa ñu ngi lay ziare bu baax Serigne Mbacke bi rafetlu liggéey bi. jërëjëf. waaw ñu ngi na xol bu sedd guyu guyu guyu. jërëjëf. di waxtaan di am di am mu yaatu nag di wax ci sang bu tedd boobu. sallallahu alayhi wa sallam. wax dëgg moom moom moom daal. lépp luñ ci wax rek moom xeeb nañu ko mën naan jërëjëf ndaxte wax dëgg yàlla moom moom daal xam naa ne ak dundam daal barkeel dëgg la te tamit li nga wax léegi rek moom moo ñu tàggaleeg lépp rek laa mën a wax dama ne leen ak lenn waaw kon nag moom moom ñu ngi ñu ngi ñu daal bu baax a baax di la ñaanal yow it eh, bég mu yaat am yéen tamit di ko fas yéen yaa eh, nag màggal rek comme ni ko sëñ bi waxee di wax ñu tax ci ma xool bi sëñ bi yàqu dinaa ji jannat waaw kon nag sëriñ Mbacke sëriñ Fallou Sow nga nee nag lay yónnee ay nuyoo. maa ngi koy fay. ñu ngi mu ay nuyoo man it maa ay nuyoo ñu ngi dégg nag bu baax a baax a baax baax jërëjëf jërëjëf waaw ñu ngi yéene bu baax a baax a baax macha allah baax na jërëjëf sëñ Ba jërëjëf maa ngi koy bëggee guddi yonent bi la alayhi salaatu wasalaam moo ko moom di jégalu ci qualité son boobu bari na tuuti buru wi imaam Mansour Seck asfiya yi imaam salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi lay ndokkeel ci fukkeelu fanu gàmm gi sëriñ maa ngi bég lool. ndeysaan di la bég ci say taxawaay yow itam. waaw maa gën a kontaan ci yow. macha allah naka waa Asfiya. ñu ngi góorgóorlu baax a baax di la gërëm bu nekk di la di la jërëjëf. sa émission bi fa defoon ba léegi. ndeysaan. saan du du dañ di def ay njeexit. jërëjëf jërëjëf. te it euh, ba léegi ñu ngi rafetlu sa taxawaayu daara. macha allah jërëjëf. ak sa cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. wa salaam waaw góor. Euh, li nga li ci Seydina Muhammad dama leen doon ubbi rek yéen yéen sëriñ daara yi. déet yaa suñu sëriñ yaa suñu sëriñ. <laughs> bisimilah waaw xam nga lu tax am lu wolof wax. waaw wolof nee na. mbër mu daan ci ngoon gu ne. Ah, galgal ba nga daane. waaw tibb. waaw lekkoo ko ci bis bi. <laughs> dëgg la de. tey li nga wane fii. wax ko ci Seydina Muhammad. alayhi salaatu wa salaam. sallallahu alayhi ci guddeem gii. ndeysaan. dane day wane ni yàgg nga déeyoo ku xam sayyidina Muhammad ndeysaan sallallahu moo xam ci téere la moo xam ci mag ñi la dëgg la dëgg la yal na yàlla fay la wallaay ndeysaan amin li ko Seex Seydi Haaji Malik wax ndeysaan mu ne ko lan fal urbu xayru unaasin hmm. suma xayruhumu hmm. quraychuhum wa fiihim hmm. xayru xayrihimi wallaay ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam nee na arab yi ñoo gën ci nit ñi la tax ñu ala ne arab moo gën ci ñi mu la tax ñu gën ci ñu ñi. ndeysaan. nee na du ñoom parce que xuraysin moo tax. Mm-hmm. mun waaye xuraysin na tax ñu gën ci. Mm. dafa am ku leen rax. ndeysaan ku leen rax dafa am ku génn ku génn seen biir mooy sallallahu alayhi wa sallam. alayhi salaatu wa salaam. bu du woon bu du woon Sayyidina Muhammad. Mm. du ñu tudd xuraysin. déedéet abadan. bu du bu doon Sayyidina Muhammad. Mm. du ñu tudd benn giir ci Makka. dëgg la. waaye te giir yooyu. Mm-hmm. ñoom ñoo may valeur arabe yi. Mm-hmm. kon sallallahu alayhi wa sallam moom daanaan la. dëgg la lépp mooma. mu lépp moom la lépp mooma lépp mooma dama ni li ko Seydil Hadji Malick wax hmm. ci biir xilaasu dëhëb san ci guddi yu ñu toll it hmm. nga xam nga sëriñ Mbàkke waaw ah, Seydil Hadji Malick radiallahu anhu est-ce que xam nga ne mi ngi def mi ngi taalif xilaas ci vingt et un jours hmm. wax ci moom nii bari na kuy bind ci siira te bind nga ko mat atum yàlla te waxoo ko ci moom wallaay dëgg la ah imaam Mansour imaam oh allo waa imaam ñëw na waa bismillah continuel waaw dama ñu sëriñ Mbàkke waaw ren seet suñu Sénégal ko gën a jàpp dëgg la sëriñ euh, Cheikh Tidiane al almaktum yal na yàlla yokk leeram amin amin yaa rabbal alamin dafa waxoon ni am na benn góor gu ni ma nee na naar yi ñu gën mag ñu jëkk waaye ñun ñu leen gën mag ñu mujj ndeysaan ndeysaan loolu la ko waral nag mooy mag ña dañoo takk seen ndigg mhm. jël leeri Seydina Mouhamad taalif ci mhm. am na suñu benn oustaz boo xam ñu ko daan wax oustaz Ali Ndaw mhm. mu nekk taalibe maam Ibrahima Niass mhm. suñu sëriñ daan wax naan Mansour jàng baytu mag ñi dafa am solo ma ne ko lu tax muy ndax yéene bi ñu tàggee seen maam Seydina Mouhamad yéene bi ñu tàggee Seydina Mouhamad leer googu du bàyyi taalibe dëgg la déedéet abadan loolu moo tax euh, par conséquent Sénégal ràññi ko lool ci sallallahu alayhi wa sallam bu màggal jotee bu màggal jotee suñu maam jotee Touba. Hmm. boo jëlee ay bindam. Hmm. dangaa ngaa xalaat ci rek moo xam Seydina Muhammad. ndeysaan nga dem ñu teg ci un mois wala boog ñu teg ci vingt jours. Hmm. ñu ñëw ci Seex Al Haaji Maalik. nga ne waa nga ne moo ko xam. wallaay nga dem tuuti aji boo ñëw. nga ne waa xanaa kee mbaa bàyyi laa rek moo ko xam. loolu mooy Sénégal. macha allah. yal na yàlla fayal ñu ko. amiin yaa rabbal aalamiin. Sud FM a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan na kontaan kontaan nañ ci lool. macha allah jërëjëf. bis bu nekk ñu lay suivre de près de loin. jërëjëf jërëjëf li ci diine ji na solo lool. macha allah maa ngi lay bàyyi xel ci diirub gàmm gi boo féexee rek nga ñëw ñu waxtaan incha allah mu benn problème incha allah boo feexee rek nga waxtaan amul ko préparé Hadji Mbacke yow suñu xarit nga suñu na jeex na bis bu ne ñu ngi lay sigur ci na solo lool jërëjëf jërëjëf na ko yàlla barkeel amin amin amin Seck na ko yàlla barkeel li may mujjee dénkaane li may mujj dénkaane waaw mooy fukk yi nga xamante ni sallallahu alayhi wa sallam alayhi salaatu wa salaam Seex El Hadji Malick waxoon dafa waxoon ni moo yonent bi eh, ba mu génne àdduna hmm. nee na wax yu jeexoon na hmm, hmm. waaye Jibril wàccaat na fukki wàccaat na wàccaat na ñëwaat gannaaw Seydina Muhammad hmm. mu ne waaye ba mu ñëwee dafa indi dafa indi dafa doon yëkkati. Hmm. dafa doon yëkkati ay jikko. Hmm. jikko yooyu mu mu leen ci fukk. ndeysaan yumnun. wa xubbun. wa xubbun. wa raxmun. wa raxmun. maadilun. maadilun. wa xayaa. wa xayaa. sabrun. sabrun. wa zuhdun. wa zuhdun. saxal quraanu bi salami. walaay ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam mhm. ñëwaatee fukki mhm. yii la ñoo yëkkatiwaat mhm. fukki yii nag Seex Alxaaj Maalik dafa waxoon ni fukki mm. yii dem na mm. waaye nag yàllaa ngi fi man jàpp naa yàlla ndeysaan boo jàppee yàlla fukki yii du la mënal dara mm-hmm. dëgg la wér na dafa ne woon barke ñëw na yëkkati ko dem na mm-hmm. cofeel dem na mm-hmm. yërmaja dem na kersa dem na dëgg la muñ dem na dëddu dem na tabe dem na mu lislaam dem na waaye fukk yi séddi xaay ah, man na gisuma mu lim ci ni yóbbu na yàlla. Mm-hmm. kon man jàpp naa yàlla. macha allah. moo tax kon mag ñi jàpp gi jàpp yàlla. Mm-hmm. waaye nañ leen ca fekkee waay. jërëjëf tubarkal. Seex la Seex la Xadim te la ne woon. Seex Seex Alxaaj ci la ne woon. Eh. waaw. Baay laa ci la ne woon. dëgg la. Cheikh Ibrahima Niass la ne woon. dëgg la moo wér. yàlla na yàlla na ci nekk Sëriñ Mbàkke. yàlla na ci nekk ñun. amiin yaa rabbal aalamiin. kontaan nañ loolu yàlla na yàlla fay la. amiin jërëjëf. bu ma yaatu rek daw ñëw ñu ñu jëntu. incha allah maa ngi lay xaar fii sax man nga man nañ fee jaar rek dana xool nuñ koy kiyee. amul problème ndax gàmm gi dana xat yow waaye danañ jokkoo bu soobee yàlla incha allah boo yaatoo def ma signe rek. incha allah jërëjëf lool ndax ma yaa war sama mbir. <laughs> ñoo bokk mbuus. <laughs> jazakumullahu xayran. <laughs> jërëjëf sëñ Mansour Imaam maa ngi koy nuyu baax a baax te di ko bégee mi ngi noonu montre yu baax yi yëpp a bokk heure yonente bi alayhi salaatu wasalaam la ñuy feeñal ay soppeem yi ci biir réew mi ngi nekk bitim réew ñëpp maa ngi leen di bégee salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah. waaw yaaram. Ibrahima Kapa. Ibrahima na nga def. sant bu baax a baax. tubaarikàlla. wax dëgg yàlla jërëjëf jërëjëf. di nga duggee salaam. da mhm, mu waxee wa huwa akmalul wara. xalqan wa xuluqan fahara wal mislu qattu lam yura wala yura wér na. waxaat ne fa mablagul ilmi fii annahu basarun. wa annahu basarun mhm, wa wa afkaar. wa afkaar moom. Mhm. kon kenn mënatu la lépp yam Tijaan. macha allah macha allah ñu ngi teewaat jërëjëf jërëjëf Ibrahima ko macha allah jërëjëf bëgg nañ sa dugg boobu ay soññee la ci ñun rek waaye ñu wax ci eh, xam naa li ñu wax naan bàyyi mbill gi laa koy tudde tey mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ma sa moom lépp waaye nag dañoo ne ci weeram ak i fanam te waroon a jël sens de eh, occasion bu rëy rëy ngir jàngaat ko ndax ñu gën koo xam ay eh, waaye buñ ko xamoon te roy ko salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah bisimilah. Pape waaw. ñu ngi lay yal na yàlla nangu siyaar Omar. dem dë dem dëkk jotaay bu baax. jërëjëf. alhamdulilah la. Omar na nga def. ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah Omar ñoo ngi lay siyaar baax a baax tey bëggee tey bëgg ci yow. yàlla na yàlla nangu siyaar bi. di la ndokkeel baax ci weer wu tedd bi yàgg suñu xarit yëpp. waaw ñëpp alhamdulilah na yàlla ñu ngi leen delloo ndokkeel gi di am seen mbégte ci taxawaay bi. jërëjëf. yàlla na saa borom ba lépp luñ ci defal luñ ci jaamu yàlla na saa borom ba nangu ko. amiin yaa rabbal alamin. te am mbégte bu baax a baax a baax waa ji déglu naa ko sànq na lenn mu wax tuuti xaw naa rawal sama yaram rek. ci hmm. waaye Seydou Hadj Malick ci góor gi dana déclaré ne ku muy jiite amuloo amuloo amuloo julli. waaw. na mu fa demee. Hmm. xam ne loolu daw na yaram man nit ñi daal li saas jox yàlla na yàlla yàlla na yàlla yàlla na yàlla fayal nu leen. amiin yaa rabbal alamin amiin. waaye macha allah yal yàlla fay mu ngeen baal. amiin yaa rabbal aalamiin. seen taxawaay rafet na. yal na yàlla gën koo dëgëral. amiin yaa rabbal aalamiin comme li wax wax dëgg yàlla sa taxawaay rafet na yàlla sama borom ba yàggal la fi saxal ci wér. amiin yaa rabbal aalamiin amiin ñu ngi nuyu Oustaz Alioune Sall ak euh, Oustaz. Euh, euh, nu mu ci mhm. di leen ziar wér-wér di leen ñaanal jàmm jàmm moom wax dëgg yàlla dëgg la dëgg la. moom sañoon heure moom kenn ku ne Sénégal yi rek ngay nekk sa njaboot di leen waaye nag loolu yàlla dogal. yooyu wér di wér si di la ñaanal jàmm di ànd ak yéen jotaay ba mu jeex. incha allah suñu borom. jërëjëf yàlla na gën a yàgg ànd bi. amiin war a doxal amiin war a doxal yàlla na gën a yàgg kontaan nañ lool kontaan nañu ma gaa yëpp ñu ngi nuyu waa diaspora bi yëpp waaye Pape moom ñëpp ñu ngi leen nuyu dina jaar wér. jërëjëf jërëjëf ndeysaan. yàlla na sama borom def fanaanum jàmm baax na jërëjëf. amiin amiin jërëjëf ñoom ñëpp ñu ngi lay fay soppe yeeg am di jàmm yooyu ñoom aji paam Ndiogo Sall aji Pape Mor Diaw aji Doro euh, soxna Ndeye Camara mboolem ñi nga xamante ne ñooy bàyyi xel ci DFM seen rajoto te nekk diaspora bi rawatina nag ñiy bàyyi xel ci DFM seen rajo te nekkaat fii ci biir réew mi ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu te di leen bëgge tubarkàlla 88 28 98 98 33 841 22 33 foofu yëpp ay bunt la yoo xam ne man ngeen cee jaar ñëw ñu waxtaane ki nga xam ne dafa saf yàlla ba ku ko safoo yàlla safoo la ku ko jéem a doyal di suñu borom doyal di la subhaanahu wa taala keroog ba nga xamante ne nii ndeysaan ñëw na euh, ca màkkatal mukarram ca yoor yoor ba yéeg ci kaw montagne ma war a euh, fésal nag woote bi nga xam ne moom la ko suñu borom digal mu ne leen yaa maxsara xuraysh yéen ñi nga xamante ne yéenay sama mbokk yi dëkk ci dëkk bi ñëpp daw ñii tëj seen i place ñii dénkaane seenum njaay ñii boot seen i doom ñëpp ñëw ndax moom mësta woote waaye nag mësta waxit lu wuutu lépp lu mas a wax dëgg la ñëpp ko bëgg ñëpp daw di ko dënk dénk ko seen nopp ya mu am ñeen fukki at ne ndax su ma leen waxoon ni leen ginnaaw xunti mii am na fi ay soldaar yoo xamante ne ñi ngi daw jëm si ci yéen dëkk bi ndax da ngeen ko gëm ñu ne ko am maa jarab naa alayka kadiba yabna abdallah yow day mësuñoo xam ci yow mësoo jaar ak ci wax lu du dëgg cey maanaam yonente bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi avant muy taxaw waa Màkka di wax naan yàllaa ma yónni démbam amut luñ ko ci mën a wax naan ko xanaa du yaa fi doon def nangam xanaa du yaa fi doon def nangam xanaa du yaa fi def nangam léeg euh, nit dana jéem a góorgóorlu ndeysaan ba ci tax ñun di jàngale diine di góorgóorlu waaye am na barab yoo xam ne mënoo faa wax yàlla nee na mënoo faa wax yonent bi nee na am na koo xam ne sax bu la doon déglu sax sa démb lay fàttaliku tax tey du mën a jariñu ci yow sallallahu alayhi wa sallam garantie boobu la ko yàlla defal ba amut lu ñuy fàttaliku ci ginnaawam muy taasal imaasu tayam tey nga xam ne démbam ak tayam lépp a yam moo tax ba mu waxee ñu ne ko boo ko waxee ñu gëm ko yow doomi Abdallah ji yow mosoo ñoo wax lu du dëgg loo ñu mas a wax dëgg la mu ne leen inni rasulullahi ilaykum inni rasulullahi ilaykum xaasa wa ila nnaasi kaafa allahu akbar ne leen li ma leen wax nag du ay soldaar yu jëm si ci yéen nouvelle bi ma leen di indil moo gën a neex loolu mooy seen doom jii ngeen di tagg ba doon ko wooyee al amin maa ngi leen di xamal ne ab yonent laa bu yàlla yónni ci yéen yónni ma ci nit ñi ñëpp nag allahu akbar keroog la euh, bàyyi taxam ba abu lahab da ko tabban lakk yaa muhammad ali hada jamahtana waaye waaye toskare nga waaye yow jàllal fële xanaa du lii moo tax nga di ñu dajale suñ borom ne kaay ma fayul la moo tax ma ne ku ko jéem a ñàkkal fayda ku ne suñ borom a jóg bu doon nit dañ ñaan tubayul ko waaw layal ko ko ba mu leer ne ko tabbat yadaa abi lahab wa tabba 88 628 98 98 33 841 22 33 foofu ngeen di jaar ngir ànd ak ñun ci jotaay bi nal muna ñuy nal muna ñuy nal muna lana bushra lana sa maam qad kaana mutlal xalqi misarraqi Maodo doon nu yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah. sëriñ Mbacke si Ibou def mbeng baa yaa ngi ci jàmm. ñoo ngi sant yàlla baax si la. macha allah. wax dëgg yàlla ñuy bëgg trop ci jotaay bi macha allah. jërëjëf. nga xam ne sang bu tedd bi daal moo neex a tàntar. sallallahu alayhi wa sallam déedéet. boo ko waxtaanee ku ko bëgg a bëgg. dëgg la dëgg la. xool yëpp sedd na. macha allah. ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. di ndokkeel bépp ëttu kër gi ne nga xam ne ñoo ngi koy santal. tey waa ji jigéen bi jërëjëf Mbeng. ñuy ñaan yàlla mu yóbbu ñu ci baax a baax. amin amin amin wax dëgg yàlla ñoo ngi lay jaajëfal Serigne Mbacke. jërëjëf. yi ni nga lay taayalee jotaay bi ci sang kontaan nañ trop xol yi na. macha allah ñoo ngi nuyu ñëpp bàyyiwuñ kenn di nuyu Imam Mbaye tamit di ko bàyyi xel. jërëjëf waa hmm. Sénégal gépp di ñaan ñëpp jàmm. alhamdulilah amin rek si nga jërëjëf merci jërëjëf Ibou ngoonee mbeng auditeur u jotaay bi la ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko bëggee di bég ci moom it ni mu ñuy bëggee ak ni mu dëkkee di àndeek ñun noonu li nga xamante ne mooy jotaay bi di leen ndokkeel bu baax yéen itam te di leen nuyu bu baax a baax fële ca zawiya Cheikh si Hadji Malick ba radiyallahu anhu jamono ji lii moo fa am. alayhi salaatu un immense héritage nit ba pare bokk ak ñoom li ñu yor. premier xalifa ah, kooku nag il faut nga sopp ko. waaw du laaju la li nga yor ba pare wëlbati ko bokk ak yow li mu yor moom kooku moom fooy jaar. loo nekk nekk njaayeen sopp leen. waaw loo nekk nekk njaayeen la nga mën def fokk sopp leen. kon ba mbokk yi yal na yàlla may cofeel googu ci gàttal. def ñu taalibe Cheikh na Ahmed Tijani radiyallahu anhu yu yem fi ñu leen war a yem fi ñu war a yem. loolu mooy am jamono jii ca biir eh, yi sëriñ wala boog ca sawiya Cheikh Sidaaji Malick si radiyallahu anhu jotagumaa xam kii di wax xam naa Oustaz Alioune Mbaye dana ci ñëw ak man léegi xalifa baa ngi toog ci ginnaawam feggoo ak sëriñ Maodo bu sëriñ Abdou Assis si ak kilifa yëpp salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah alxaaji Pape Mor man de sapon laa bëggoon a gàmmoo si mais dafa xaw a xal rek ñëwal ñoo bokk gàmm ren <laughs> ñun dimanche la ñuy gàmm yéen samedi ngeen di gàmm. ah da ngeen ñu fekk ci dimanche. ah waaw bu dee dimanche la moom dinaa mën a ñëw. <laughs> waaw kay jëlal vol léegi léegi lekk. incha allah boole ku la jëm si aéroport bu neexee. jeex na amul benn problème maa ngi ci yoon bi. <laughs> waaye ñoo ngi lay ziar bu baax waaye. alhamdulilah. di rafetlu kàddu bu baax. amin ah, jërëjëf. dégg naa ne léegi nga ne eh, yàlla nee na laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. waaw waaw. Eh, am ngeen roy waay boo xam ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. dëgg la. moom mu wàññeeku ne asxaabi kan nu jóomi ci ay ixtidaytu bi istadaytu. ndeysaan wallaay. bu ngeen bu ngeen ma noppee gis seet boobu yàlla jox ko. Hmm. moom la wàññeeku jox ko saabam yi ko toppoon nag ku ngeen ci mënta topp rek ñoom ñëpp ay biddiw lañ. ndeysaan nga xam ne daa danaan waajalal naa ñoo xam ne ku ngeen ci topp ñëw. exactement bu ngeen ma fekk bu ngeen ma fa gis rek ñoom a ngi ni yoon waa ngi nii. ku ngeen ci topp da topp ci yoon. est-ce que ban nag li ma gën a daane nag mooy disque ba nga xamante ne Jaafar defoon na ko ci xabasa. wallaay ndeysaan wallaay. boobu na ko ay yàlla Malick uh, ku naa xaw man fi ahlil jaahiliyya naabudu asnaam. ndeysaan. wa naakulul mayt wa naakulul mayt. Mm-hmm. wa naatil fawaayis. Mm. wa mm. wa nasiyul jaraar. Mm. ba mu taxawee ci ay uh, buuru abasa. mu ne ko lu ngeen def yéen bañ génne leen fa ngeen ñëw fii. jaafar na ko ñun dañoo nekkoon ak dañoo nekkoon ci di def lu ñu neex. Mhm. nekkoon na ay nit jaay lañ di jaamu ay xaram. di lekk mbedd. Mhm. di def ay ñaawteef. Mhm. maanaam doom di bàyyi di seey ak doom di seey doom. acam yaa ngi dégg. bu baax maa ñëpp. waaw bu ko defee mu ne ñuy lekk mbedd. di def ay ñaawteef dagg bokk. di ñaawal ci suñu dëkkandoor daawuñ ko rafetal. ndeysaan. kopp doole di di di dal ci ku amul doole. ndeysaan. wax discours ba mu jeex nag mu ne ba mu ñëwee mu mu digaluñu lu dul jaamu yàlla. Mm-hmm. ak wéetal ko. Mm-hmm. rek la ñuy digal. ndeysaan. ak dindi xaram yi fi nekk yëpp. dëgg la. ak di joxal kóllëre. Mm-hmm. ak di jokk bokk. ak rafetal say dëkkandoor. yooyu yëpp mooy jikko yi nga xamante ne moom la andi. dëgg la. waaw loolu daal mooy li nga xamante ne daal mooy li nga xamante ne mën nañ ko jégaatal buñ ci doon wax. dana gën a bëri waaye dañ jokkoo bu neexee yàlla. ci gàmmu gi am na solo am na solo dañ jokkoo ci gàmmu gi ay yoon bu soobee yàlla. bu neexee yàlla yàlla yàlla defal la tawfiq ak tayseer. amiin yàlla nañu ko yàlla boole. ñoo ngi nuyu Oustaz Alioune Mbaye ak Oustaz Alioune Sall ñëw dégg nañ leen léegi bu baax a baax. waaw jërëjëf ñoom ña ngi ca bordo ba fi mu ne. waaw di nuyu ñoom Alaaji Dooro si la ñoom Alaaji Pape Ndiogou Sall ak soxna Ndeye Kamara ñoom ñëpp ñu ngi nuyu. jërëjëf jërëjëf. ak sëñ Omar Ndiaye moom génn na ñu ngi koy nuyu bu baax. jërëjëf jërëjëf. maa da may may rek moo xam ne toog saab léegi di wax naan ba gàmmu bi daal la. waaw. texee di ko texee di ko weesu ko. ndeysaan ndeysaan. waaw xul bi fadlillaahi wa bi rahmatihi fa bi zaalika falyafrahu hmm. mu ñëw fi nga toog fi naan gàmmu bi daal wala màggal bi daal wala nangam sangam bi daal. Hmm. maanaam texe texe di weesuwut loolu. ndeysaan jërëjëf. nit bi too boo texee da ngay jël fal yatanaafasil mutanaafisun hmm, da ngay njëkkalante dem defi lu baax comme nit ñi ni koy defee lu baax waaye toog téye sa loxo. dem boo ceeb tiim boolu ceeb naan lii dafa sax faram ak. kenn mënu koo lekk ak nangam sangam ñëpp lekk di gis ca xéwal ji ni mu bëree ñi di ci gaawantu. yow ma naan kuy daal ak nangam sangam. loolu moom yàlla na yàlla defal dégg ak topp. amiin asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax aji Pape Mor Diaw euh, am na mbokk yuy fëgg ba léegi waaye jamono ji xalifa ba ma nga yëkkati ay kàddu foofee ca tiwaawoon yaa ayna faydallahi wal irfaani yas'a ilayka al xalqu ka zamaani jërëjëf madame Ndour maa ngi lay béggee baax a baax soxna astu moom sëñ Daawuda Fall maa ngi lay nuyu itam di béggee ci ñi nga xam ne ñooy yónnee ay message yëpp ci ñëw léegi ci beneen xaaj bi ñu daal di daw koon samp suñu xel fekki kàddu yi nga xam ne moom la sëriñ Babacar Sy Mansour xalif général di Tidiane di yëkkati ay kàddu jamono jamono jii bismillah tekkil ko ngant la indi ko mu fekke si nag lii inna al umuura bi si Maodo Sidi Bakar ko ziyaara nag bu baax guddig àggale gii. nee guddig àggale gii. ñu ngi ciy ziyaare suñu baay bii toog. ñu ngi ciy ziyaare itam suñu baay bii toog. di alxaaji Moustapha Sy. di di ko nuyu ñu jégalu bu baax a baax auditeurs yi nga xam ne ñu ngi woote ñëpp di fëgg di leen wax ne ñu këppandeegun rek ba a yàgg ci serveur bi di xaar ah, xam naa bu sëriñ bi daanelee tombeek ñu tënk xibaar yi ba noppi danañ jëllu si waat ak yéen ci ñaareelu xaaj bi bu boobaa ñoo ngi leen di jégalu bu baax a baax ñu ànd déglu ko. ñëpp. comme ñun ñëpp rek. bu toogee moom sëñ Moustapha ñun ñëpp bàyyi lañ koy wax. kon ñun ñëpp ñu ngi ci keppaaram. mu mérité ko nag ci pas-pasam xalqi kullihimi jërëjëf euh, Babacar jërëjëf Alsaan euh, jërëjëf waa rédaction bi yëpp ñu ñëwaat nag ci ñaareelu xaaju albidaaya ni ñu ko baaxoo defee albidaaya tey di spécial Tiwaawoon euh, noonu rek lañ ko tëralee di fas yéene ànd ak yéen itam yaatal ko wéyal ko yitam ci niñ ko doore woon ak yéen ci xaaj bu njëkk bi jamono ji xalifa bi mi ngi ci yëkkati kàddu yi mu doon def ba léegi jeexalagut tënkal nañ xibaar yi ba noppi Oustaz Alioune Sall ak Oustaz Alioune Mbaye ci jumaay Serigne Babacar foofa itam ci tëccal burdu bi ci teewaayu Serigne Pape Malick si ci kanam tuuti danañ fa delluwaat ñoom itam euh, euh, jëliwaat leen tombeek euh, burdu ba di daanu foofu ak xew-xew ya nga xam ne moo fa xew yëpp ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci topp gi ngeen ñuy topp di leen bége bu baax di bég ci ni ngeen ñuy bégee ak ni ngeen di toppee jotaay bi ñu jël auditeur bi door a waat suñu mbokk yee nekk Tiwaawoon te ñëw salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. Paye Dramé na nga def. sant bu baax a baax. jàmm rek tey. ñu leen siyaare bu wér. jërëjëf. di leen jàmm. amin jokkalante bi rafet na lool. jërëjëf. di ko dagg si sa liñ hmm. hmm. hmm. ko suñ borom yaatalee ak ni ko jullit ñi yaatalee. yàlla na jëm kanam. amin yàlla na yokk ba faw amin ñu ngi leen siyaare bu wér. jërëjëf. di leen ñaanal jàmm. amiin su ngeen fi nekkutoon dana ñaaw de. ndeysaan wallaahi asim su ngeen fi nekkutoon dana ñaaw. Hmm. ndax li ngeen nekk nii. Hmm. dara taxul leen ñu loolu yàlla yonent bi. Hmm. amul benn foo xam ne xam nañ fu ngeen fi féete. muy fii muy fële yëpp. lépp rafetoo rek moo leen tax a jóg. yàlla leen ko yàlla fay. amiin ñu ngi leen di siyaare bu wér waay. jërëjëf di leen ñaanal jàmm. jërëjëf. di siyaare Assane Binta Colobane nag. jërëjëf di ko ñaanal jàmm ak salaam ak gu yaram. amiin amiin. fekkee ak tal. amiin. jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Baye Dramé ñu ngi koy jaajëfalaat baax ñu déglu xalif bi. li matul dara. borom ñaar téeméer yeeg téeméer yi. danañ leen jox nit. ñu dajal leen ko. waaye ku joxe. bu dee téeméer. nañ la jox ruusi téeméer. bu dee milliard. nañ la jox ruusi milliar pour rek ndax ka koy jox buñ koy contrôler suus ba mu amee moom la ñuy seet lu mu ci joxe waaye ku joxe rek mi ngoog xalifa baa ngi noonu kon ci ay kàddu yu jeexitalam ci tëjteel burdu bi ñu jéem a xooliwaat suñu eh, gaa yi fële ca ca jumaay Serigne Babacar Sy radiallahu anhu ca teewaayu sëriñ eh, Pape Malick si eh, ma nga fa di yëkkati ay kàddu jamono ji moom lañ jéem a xool ba xam danañ ko mën a Eh, amam déet kaddu ya nga xamante ne mu ngi ko yëkkati eh, ci lu yàggul dara jaajëfal leen bu baax a baax ci ànd ak ngeen ànd ak ñun ci jotaay bi jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo ci ñoo ñuy topp ñëpp ak fépp foo xamante ne ña nga fa tey ànd ak ñun jotaay bi ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen bégee ñu dem xooli eh, jumaay Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu fekk fa oustaz Alioune Mbaye oustaz Alioune Sall Alioune Badara Socé équipe bu technique bi nga xamante ne moom la si FM seen rajo yabal ña nga foofa war a ànd ñun jotaay bi waaye foofa jàpp jàppandeegut kon ñu def ci zawiya bi ci xalif général de Tidiane ba ci kanam ne ñu toog réglé ne lii ci ne moor dana ko séddale kenn par kenn ku jox nag na bàyyi ci kumpa ba ñu teeral nga wax ko la benn par benn par benn ngay jote def leen ndànk rek danañ ci dellu waat loolu daa mel ne am na tuuti ay jafe-jafe ci wàllu euh, niñ ko bëgg a jëlee euh, ci yi nga xamante ne xalif bi mi ngi ci ci leneen loo xamante ne nii mooy gën a yaatu ci kanam tuuti la doon incha allah 88 628 98 98 benn la ci buntu yi ngeen di jaare 33 825 18 30 suñu wayjur sëriñ Pape Malick si bu sëñ Babacar mi ngi yëkkati ay kàddu nii jamono ji nga xamante ne ci la ñuy àddoo foofee ci biir jumaay sëriñ Babacar dafa mel ne jàppandi na a jëli kàddu yi nga xam ne moom lay yëkkati bismillah ba mu làqoo ba léegi maa ngi koy door a gis gis bu leer waaw ah, la mu waxit ma dégg ko ah, ma dégg ko ndax ñoom eh, dañuy fàddu waaye duñu faatu waaw ah, waaw dañuy dañuy fàddu waaye duñu faatu waaw ci li meng te ni jonn ñoom rekk la ko yàlla may waaw tabaarakallaahu ah ko defee ñu ñaan ci seen barke ak seen leer seen yaakaar bañ a tas ci biir bañ a tas ci biti tabaarakallaahu Eh, wax naa sànq ci Cheikh Al Omar gis naa benn xasida bu sëñ Cheikh Tidiane si defoon di ci tagg xaaji Saïd Nour di ko wax ni ko yow la yàlla may bëccëg bi nga toog ak administration coloniale bi ci seen taabal yi bëccëg bi yàgg ñoom guddi gi yàgg awliya yi ci kaw xadaratul xaybiya waaw ni ko yow rek la ko yàlla may moom xaaji Saïd yombul waaw yombul yombul waaye yàlla moom yoonam nekku ci xam nga yàlla cër yi muy may yëpp amul bum ci soxla parce que nekk na yàlla ba noppi te kenn mënatu koo dindi waaw kenn mënatu ko dindi bu ñu dee sonnal ci wonn fu ñuy teg suñu tànk suñu dignité moo tax ah parce que weddi yàlla ci la ñàkk dignité yam waaw yàlla ci la ñàkk dignité yam eh. même les athées am na ñu nuy tudde ay ate yoo xam ne dañuy wax ni euh, gëmunu yàlla waaw mais boo discuter ak ñoom lu sori rek di nga xam ni xamuñu fu nuy teg seen tànk te itam kenn mënul li yàlla bind yépp nga weddi ko waaw kenn mënu ko parce que boo ko weddee yow ci sa bopp fooy taxaw dootoo ko am te ñi ngi ciy werante ak xale yu bërki biig ba ñu ci doon def ay recherche mooy ndax yàlla aadama la njëkk bind walla njëkkul bind aadama parce que aadama bi mu existé léegi matagul euh, wala ca lay yëpp juróom benni junniy at weesoogu ko waaw àdduna bi di exister depuis ñaata miliyon ci ay at ñu ni kon aadama ki am suñu espèce moom la yàlla bind boobaak léegi mu war a toll ci juróom benn junniy at mais est-ce que Adama boobu la ko jiitu woon amul woon ay awaadim d'autres Adam waaw ay awaadim yoo xam ne xamuñu ban espèce la ñu am loolu ñi ngi ciy def ay recherche man gëwuma ni Adama la njëkk a bind ci ku am suñu espèce d'accord naa ci mais compétence sam ëpp na loolu bu may wax ma ni compétence sëñ Cheikh ne ma bul waxati compétence del wax légitimité waaw ah. légitimité yàlla parce que il est légitime waaw ah, ñaanul kenn dimbal waaw ah. dañuy seet ba xam Adam parce que Adam ñaata at la dund passé wul cent soixante dix ans ca la war a yem li mu dund waaye c'est eh, eh, il y a cette main experte qui change les acteurs sans pour autant modifier la scène ah, cette main experte c'est la main du créateur boo ko toppe dinga dem ba réer ci sa biir xalaat waaw bi wax dëgg yàlla moo fi njëkk te moo fi mujj waaw lool la dogal loolu la nu mëne ñun ñëpp li taxoon Cheikh El Hadj wax ni dootul laaj xalaat ku dul yàlla parce que moo fi njëkk ñëpp te moo fi mujj ñëpp mu ne kon bu may laaj xalaat ma laaj ko ko moom parce que yàlla du juum ñun ñooy juum mais yàlla ci boppam du juum waaw moo tax mu tudd yàlla moo tax mu nekk yàlla kenn jàppalewu ko ci nguuram waaw te kenn du ko ci jàppale gis nga défi ñaari défi rekk moom lañu lancé moom yàlla ba léegi relevé gunu defi bi bu njëkk bi c'est la vieillesse am 40 booy dox ñépp di dégg sa tànk ni muy dale ci suuf si ding ding ding ding ndax kàttan nga dem ba buñ téyewul sa loxo pour nga jóg doo jóg xalaqna al insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin loo ci mën la mort la mort n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand j'évoque la mort, ce cher Gansi me dit la n'existe pas. C'est le processus de réintégration qui permet à l'âme de rejoindre le monde spirituel. loolu la ñuy tudde de ah. fii la am interruption mais yaa ngi dund feneen ah. yaa ngi dund feneen Ah. lu lu doy la waaw lu doy la parce que boo bëggee wut yàlla ci boppam foog nga approfondir waaw foog nga approfondir xamuloo di alquran ki koy jàng pour lu mu jullee du xam njariñu alquran ki koy jàng pour lu mu léemoo du xam njariñu alquran Seydina Omar nee na nañu toj téere bi interpréter profondément li ci biir nee ci la xam ni li yàlla wax ni ma faratna fil kitaabi min shay dëgg piir la mais bu ñu ko deful nag lu dul yem ci lu ñuy léemoo wala ñaari saar yu nu jàng pour di ko jullee fan la nu alquran di yóbbu fen du nu yóbbu fen waaye rek moom <laughs> xam nga duñu tooñ de mais day def lañu xalaat wax ko xam nga ma Pape Cissé maa ngi koy déy bi nu jullee gee ba sëlmal ma ne ko man rukkoo bu yàgg mënatuma ko <laughs> waaw ma ne ko sujjóot bu yàgg mënatuma ko ma ne ko te yonent bi dafa wax ni booy jiite bàyyil xel ñi mënewul rukkoo bu yàgg mënewunu sujjóot bu yàgg boo wéeteeg sa bopp nag nu mu la neexee nga julle loolu la yonent bi wax ah. euh, li tax ma ñaan ñeme pour ñu tegal ma fii fauteuil lu tax ma ñaan ko parce xaraamul du dinga egg ci situation foo xam ne pour nga julli may nañ la nga toog ci fauteuil julli may nañ la nga tëdd julli ci sa situation santé la dépend kon kañ sañ naa ni nañ ma wutal fauteuil tegal ma mais gis nga fauteuil biñ ma tegal bu neexee ci sama xol rekk yàlla bind bàkkaar parce que ñi toog ci suuf a tax waaw ah, duma ko pardonner mukk bu neexee sama xol gis nga ñi toog fii di julli ci suuf xam nga am na ñuy julli ci ko fii nii ñi nu wër ñiy julli nii ci ko bu li nu tiim neexee ci seen xol yàlla rejeté seen julli waa ñii ñiy sëpp nii bu neexee ci seen xol mais tànk nag ñu di ko def en tant que devoir yàlla du leen ci mere yombul waaw yombul moo tax euh, yàlla ñaar yooyu ñaari défi yooyu la la vieillesse ndeysaan et la mort dañu wax ni ci waxu wolof euh, góor ga góor ga dafa ñëw ci kër moroomu magam góor ga dafa màggat ñëw seet ci benn wëllëreem fekk ko fa mu fekk fa sëtam mu ne ko bu sa maam dikkee wax ko ne ko maam diw ñëwoon na fi nee na mi ngi lay xamal ne ñaaram ya ñett na mu ne ko mi ngi lay xamal ni la ko sori woon jege na ko ne ko mi ngi lay xamal ni la mu bari le woon ñàkk na ko bi maam ji ñëwee xale bi ni ko ah, maam diw ñëwoon nëf fi nee na boo ñëwee naa la wax ni ñaaram yee ñett na mu ne ko xanaa yet lay doxe mu ne ko waaw yett la yor mu ne waaw kon ñaari tànkam yi dafa am lu ko ñetteel mu ne ko mu ni mu ni nee na li ko sori woon jege na ko mu ne kon gis bànneexatul waaw mu ni nee na li mu bari le woon dey ñàkk na ko mu ne a ah, kon gémmiñ gi bëñ desu ca message codé waaw mu décodé yépp waaw ñoom ci yooyu lañ daan mënante ci yooyu lañ daan waxante lu lu am solo la tabaarakallaahu waaye eh, eh, yàlla xam nga li sëñ Cheikh si di wax ni dafa am question responsable ak ay question irresponsable waaw nee na ci ñaar nga koy xam ma hada ak limaada waaw ma hada lii lan la nga yem ca waaw gis dara lii lan la nga yem ca bokk la kii ni lii lan la ba noppi jóg di seet lu waral lii kooku moo gën a nekk responsable parce que bu obtenir résultat mi rek xolam sedd yombul yombul ah. eh, eh, rabbi ah, xam nga yàlla pour nga ñaan ko loo sa bopp pour mu defal la ko rabbi laa tadar ala al ard min al kafirina dayyara xam nga ñaan gu ko gën a grave amul Parce que c'est cette prière-là qui a provoqué le déluge. Et c'est cette prière-là qui a fait de Noé le deuxième père de l'humanité. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فجرا كفارا kooku benn la bi ko ñaareel mooy la note initiale note moom ngeen di wax mun na mun na waaw xam nga xale daan nañ ko naxe ni ko téenal xool picc mi mu téel nga mun na ko fii waaw C'est ce qu'on appelle la chicnote initiale. Ah. Euh, euh, euh, chicnote initiale, c'est cette chicnote-là qui a provoqué le Big Bang. moo ah. provoqué Big Bang. dank dank ba dank ba lu ko toj. Ah. ñu ni mun na mun na borom bi moo toj dank ba asamaan yéeg nekk asamaan. suuf wàcc nekk suuf océan yi daw montagne yi yëkkatiku kaanata samawati wal ardi ratqan fa fataqnahuma yàlla rekk ku mën moo tax mag ñi yaakaar ko yaakaaruñu kenn ku dul moom tax na eh, ku yebu rekk jàpp ci ñoom bu yebu jàpp ci ñoom tabarakallahu waqar ya baabal xayri ya rabbi lam yufid rabbi la ilaha illa la fala budda min shakwa ila llahi kurbati la ilaha illa la من شكوى إلا الله كربتي ربي لا إله إلا الله فما لي غير الله جابر كسرتي ربي لا إله إلا الله الداعي باب الغير يا ربي لم يفيد ربي لا إله إلا لا لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي ربي لا إله إلا لا أنت حليم يا صبر لمن جفا رب لا إله إلا الله فها أنا عبد جئت بعد يد التي رب لا إله إلا الله فلما بدا لي أنه ليس مربون رب لا إله إلا العلا سوى بابك الحامي مدت يديتي رب لا إله إلا الله خوف وافتقار وفقر رب لا إله إلا الله لتغفر لي يا ربي من كل زلتي رب لا إله إلا الله فبين يدي مولاي ما زلت واقفا رب لا إله إلا الله حقيرا مستغيثا لشدتي ربي لا إله إلا لا ربي لا إله إلا لا ربي لا إله إلا لا ربي لا لا إله إلا يلا كن الله رب لا إله إلا لا رب لا إله إلا نحن كن يلا رب لا إله إلا لا رب لا إله إلا nañu jaamu yàlla rabbi la ilaha illa la rabbi la ilaha illa nañu wéetal yàlla rabbi la ilaha illa la rabbi la ilaha ñu la rabbi la ilaha illa la tabarakallah ah xam naa nag lañ doon barkeelu rek ci guddi gi ñu ngi jëm ci gàmmu ah, barakallahu ñu bàyyi ko xel maag Sëriñ Babacar Si Abdu ñoo ko daan seq incha allah ah, na moom toogaay yi metti na toogaay yi yàgg na waaye rek ñu bàyyi xel gàmmu gi ci boppam mhm. waaw waaw eh, waaw kay ah, eh, fàttali rek du liya li rek waaw waaw eh, moom gàmmu yi teel naa bari de yëpp gàmmu annonce la benn rek la waaw waaw waaw waaw tabaarakallaahu xam naa dañuy fàttali rek. Sud FM chez vous à tout instant. suñu mbokki conducteurs yi. attirer seen attention ci ñuy jël seen responsabilité ci wàllu tey. dëgg la dogalu yàlla kenn mënu ci dara waaye di ko éviter nag ba ba nga cay tële mooy li gën a am solo wax naa leen fi keroog ci ouverture bi ni leen sëñ Babacar si daf daan wax ni bu accident amee nañu situer responsabilité yi kenn ku nekk lay sa responsabilité ci accident bi dañu ko xool état oto bi xel yi chauffeur bi daw encouragement apprenti yi nee na yëpp dañ ko war a seet bala ñuy condamné yàlla waaw itam ñu ñu bàyyi ci xel waaw bàyyi ci xel ah. ak itam wax dëgg yàlla bu la yàlla yàkkamtiwul nga ñaan dund ba ca kanam du wàññi dara bàyyi xelit xadara bi waaw te bàyyi xel yi bi ndax itam lu ne ak koy eh, xëcce waaw lu ne ak nañu koy xëcce eh, te Cheikh El Hadj Malick ku metti woon dund la moom Maodo waaw ndax rekk ni mu ñage woon boppam ñag boppam ba àgg ci wanagu biir këram ba jigéen ña nekk tànku góor du fa dëgg <laughs> eh. tànk góor du fa dugg mukk ngir ñogal jigéen ñi am na sax ca jamono yooya am na góor ñu fa daan dugg waaye dañ leen wutaloon ay turi jigéen pour bañ góor gi xàmmee leen waaye ba mu ko nàndee nag moom Maodo xëy suba rekk woote wax ni ñoom Kiné Jóob ak ñoom Seynabou Seck ak ñoom faatu fay ak ñëpp nañ ma jéggal sama sama kër ah xam na ko te booba ñoom góor ñi li tax ñu fa daan ah, faral di dugg mooy ñaan xooñ walla ñaan ñeex bu ñu def ci seen cere moo tax ñu fa daan dugg waaye ba mu ko nàndee rek la wax ah, daal woote ni bu fa tànku kenn dëggate waaw eh, ku mënoon na jox jigéen valeur parce que daf daan wax ni góor gu ne yaram war na àgg ci bu lekkoon ba biiram fees bu ko soxnaam taajalee ñam bu mu ko wax mukk ni ko suur na waaw ndax nee na tàngaay tax ci wàllu éducation ni muy yare nit moom Cheikh El Hadj ni mu daan yare daan na def itam bu jógee ci jàkka ji fokk mu jàdd ci ëttu ki aaye ci kër gi añ waaw pour baalu la ci tàngaayu waañ baalu la àq ci ci ci saxaar bi ci waañ bi moom Maodo door a dem nag fa muy soonu waaw fa muy soonu li mu daan soonu ci matlam bu épais boobu nga xam ni matla bu tàpp ndaar la ci la daan sóonu parce que kaw lalam daawu ci tëdd ci la installé woon téeréem yépp waaw dund bu metti dund bu metti ngir xalaat digganteem ak boroomam waaw ki gëm ni yàlla nga koy gis fu mu toll foog dundam metti waaw te fas yéene wala def lu naqari boroomam yooyu yëpp daf ci daan bàyyi xel waaw ci jigéen ñi soxla dara pour war a génn duggi ko mais du nangu waaw ah, moom Cheikh El Hadj du nangu jigéen bi génn pour dem duggi ko sëriñ Cheybatu Fall la koy yónni sëriñ Cheybatu nekkoon doomam di jarbaatam parce que eh, boo demee gaayee bokk ga dafa jaxasoo ci façon bu doy waar waaw ah, daf ci am ñoo xam ni ñii Cheikh Hadj bàyyi la ci ñoom am ñoo xam ni ñii Cheikh Hadj nijaay la ci ñoom am ñoo xam ni dafay nekk bàyyi ci ñoom nekk nijaay ci ñoom mais jigéen ñi ci kër gi buñ mësaan bëgg dara te moom nanguwul ñu génn parce que charia moo ko ko tere mais sëñ Cheybatu daan yónni pour mu dem wëral jigéen ñi loolu sëñ Cheybatu duggi na marché ba tàyyi pour jigéen ñi kër Cheikh Hadj Malick te ndugg mi daf ko daan ëmb ci mbub mi muy sol waaw ci ci ci lu kenn xamul ñoom dund giñ daan dund ban façon dund la waaw doo ko xam mukk doo ko xam amoon itam nag xàmmee gu toll ni moom Seex El Hadj Malick lu ne d'accord na ci ba mu des ngay wax ak moom laaj ko soxna boo dee jàmbanteeg moom ba ni ko ana soxna sa fa la jàmbante ba yem fa la koy dog waaw boo génnee mu ni wala fa sopp BFM chez vous à di jégalu bu baax a baax ci dog boobu euh, ci lenn ci wàllu technique bi la rek waaye ñoo ngi koy jéem a jëliwaat di kàddu yi nga xamante ne Serigne Pape Malick Sy bu Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu moo ko yëkkati jamono jii ca Tiwaawoon ñu xoolaat ko ba xam bismillah Cissé di rafetlu te waaye suñu mbokk daara oustaz Alioune Sall ah oustaz Alioune Sall dafa am lu ma koy ab bu fukki at ba tey abalu ko ah. man daal fukki at fuñ tase oustaz doo ma abal sa sikkim bi <laughs> mooy mu ne ba ñu ba ñu tasewaat waxee rek mu ne ba ñu tasewaat waaw waaw <laughs> ah tabaarakallaahu ah, le ministre suñu suñu frère Zakaria Diaw waaw ah. suñu neveu préfet Djibril Diallo waaw le commissaire Pape Samba Sy tabarakallahu waaw waaw kañ ku ko bind yow yaa ko bind ah dafa ndiru tànki jargoñ rek ah, en tout cas waaw ah. de Serigne Abdou dañ Moxtar al amin tabarakallahu indi nag gàmmu suñu mbokku gambien bile sëriñ Mor Si defe naa gàmm moom du Gàmbi. Gàmbi le 18 avril avril. Ah. man. Oh, ah, géej naa Gàmbi ça fait dix ans waaye boo ma invité nag. ma ñëw incha allah. d' yàlla baax na. incha allah. ngi ñëw. ki mooy gàmmu gi. waaw. ah indi nag. mi ngi noonu jéglu bu baax a baax ci dog-dog boobu xam naa ci kanam tuuti rek ñu delluwaat ci waawoon <laughs> léeg-léeg mu am tuuti ay dog-dog ci wàllu jokkaloo bi e, di bàyyi xel bu baax yi nga xam ne mi ngi fay bàyyi ko jamono ji ci suñu wayjur yooyu kilifa diine yi nga xamante ne ñoo fa nekk léegi tey lañ lañ doon déglu kàdduk sëriñ Pam malik si mi nga xamante ne mooy doomi sëriñ Babacar si radiyallahu anhu waaye nekk foofu ci jumaay sëriñ Babacar doon yëkkati ay kàddu waaye dafa mel ne eh, dañoo bëgg xoolaat sëñ xalifa bi sëriñ Babacar si Mansour ba xam moom itam ndax mi ngi def discours ba noppi te jeexalagut ba xam fu mu toll. amin nangu leen ñaan wax leen amin ña ngay ñaan kon foofu ci biir eh, sawiya Seex Sidaaji Malick si jërëjëf kon ñu wax amin ci ñaan googu delluwaat xool yi eh, sëriñ Pam Malick Ba xam ñaanal leen yàlla nag teg ko ci loxo boroom rawdu bi sëriñ Babacar si waaw moom lu ne mën na ko négocier digganteem ak boroomam waaw parce que moo waxoon ni ba ma xàmmee sama ndeyjoor ak sama càmmoñ ba léegi mësuma def lu naqari yàlla waaw moom rekk moo ko wax keneen waxaatu ko dama xàmmee sama ndeyjoor ak sama càmmoñ ba léegi mësuma def lu naqari son borom waaw loolu tabaarakallaahu mayu yàlla la waaw mayu yàlla la maa ngi koy waaw mayu yàlla la waaw ah, may yàlla la maa ngi koy nettali sëriñ ah, sëriñ Babacar Sy Mansour ma ni ko président Lamine Gueye dafa xuloo ak seen Cheikh Tidiane Sy waaw ah, dafa wax seen Cheikh Tidiane Sy ni ko seen papa yéen a ko def sëriñu wolof te du sëriñu wolof mu ne ko dangeen ko bàyyi rek à la de tout le monde ku ñëw jot ci moom moom Lamine Gueye moo ko wax seen Cheikh Tidiane si ni ko taman seen papa xam naa ko depuis Saint-Louis c'est un grand intellectuel da ngeen waroon di ko nëbb six mois génne ko six mois bu ngeen ko nëbbee six mois mu def ay recherche am xuloo ci xuloo bu metti mu ne ko mais da ngeen ko bàyyi rek ku ñëw euh, mu recevoir la ku ñëw mu recevoir la ni ko dafay dem ba doot dafay perdre lu bari mais ñu dem ci ba président Lamine Gueye à l'époque suggéré say Cheikh Tidiane si ni ko waxtaana la gouverneur général mu abal leen benn villa bu isole ci Ndakaaru ngeen yóbbu fa sëñ Babacar mu récupérer reposer ñu waxtaan ci ak gouverneur général am na benn villa bu nekk ci corniche présidentielle moom la gouverneur affecté woon sëñ Babacar Sy non seulement daf ko ko affecté mais mu boole ko ak service boo xam ni ñu koy servir ak des cuisiniers boole ko ak sécurité bu mat sëkk pour sëñ Babacar dem fa parce que Lamine Gueye dafa waxoon ni buñ ko fi indee itam bu ñu bàyyi nit ñi di ko fi déranger kon nañ ko wutal sécurité bu ko protéger malheureusement jamono yooyu la tëdd feebar moom sëñ Babacar ba ni mu wujjee boroomam waaw waaye loolu tëraloon nañ ko ba xalaat ko ba moom mu d'accord ci waaw lenn rek la doon laaj pour ñu leeralal ko ko waaw mooy cuisinier yi koy toggal li nuy togg fu ñu koy jële waaw sam <laughs> daal xam naa bëggoon ci yu yu leer waaw côté boobu moom léeg-léeg dafay insister ma ne ah Cheikh El Hadj Malick de biñ ko laajee yi ñuy rendi ci abattoir yi ban position lañ ci war a jël moom Cheikh El Hadj ndax reyin wa dagan na wala daganul sa seule réponse mooy daf wax ni yow mi koy jënd fexeel ba li nga koy jënd nekk lu lew waaw moom loolu rek la ci wax génn ci ay tabaarakallaahu ah yooyu mi ngi fi si bàyyi xel kooku yéene président Lamine Gueye la woon ku attaché woon ci sëñ Cheikh Tidiane si xam nga adversaire politique mais du sa ennemi président Lamine Gueye àggoon na foo xam ni moog sëñ Cheikh Tidiane si mënatul toog weer te wooluwul sëñ Cheikh que sëñ Cheikh ko ni woon waxtu woo ma soxlaa boo ma wooyee ma wuy si la may wax ni seen rencontre bu mujj moom président Lamine Gueye li taxoon mu woo sëñ Cheikh dafa bëggoon ñu jox ko éclaircissement ci ñuy jàng jawhara jawharatul kamal ñiy jàng fukki per ak benn ak ñiy jàng fukki per ak ñaar ci jawhara mais dafa wax président Lamine ni ko c'est une question de formule waaw question formule rek la bu ci nekk valable na waaw Cheikh moo tënku ci fukk ak ñaar waaw yooyu la daan laaj sëñ Cheikh amoon ci moom attachement lool lool moom président Lamine Gueye daf daan wax ni ah Tidiane moom Tidiane la daan wooyu sëñ Cheikh daf daan wax ni ah Tidiane de. loo ko bañal nangul ko culture am yàlla ko ko jox waaw loolu daan wax toujours ndeysaan yal na ko yàlla yërëm baarakallaahu ah xanaa dañ leen di libéré gàmmu mbaaxeen foofu la ah. gàmmu c'est gàmmu mbaaxeen mbaaxeen genn gi ma xam waaw kay le vingt non kañ la ah kii de bii de moom daal defuñu date année bi la def deux mille vingt ah dafa am carte organise le cent cent dix huitième gàmmu waaw le samedi 11 janvier 2020 samedi 11 janvier incha allah yal na ko yàlla mottali yaay Seydou Rougeur Sud FM chez vous à tout instant 111e gàmmu le 11 janvier hein incha allah yal na ko yàlla mottali sëñ bi yaa ngi doon a ñëw ah. kon nag affaire baa ngoog waaw naa ñëw joxel ñaan bàyyi la waaw ngeen baal no dafa am kilifa gu ñëw di xaaji Mansour Jamil tabarakallahu dafa dara agsi waaye ñu wax leen ni rek mi ngi fi ah, moom moom jataay bi tabarakallahu dañ ah, ko ci sant di ñaan lu ciy leer yàlla nañ ko bokk ak moom amin yaa rabbal alamin eh, sëriñ Pape Malick si bu sëñ mi ngi noonu di daaneel ay kàddoom joxe programme yi gàmmu yi ak yi nga xamante ne moo ci moo ci tëdd ci programme beeg ni mu ko baaxoo doxalee Oustaz Alioune Mbaye allo Oustaz Mbaye allo waa sëñ Mbacké ci njeexitalul euh, burdu bi tëcceel burdu bi euh, foofu ci biir jumaay sëñ Babacar déglu nañ waxtaan wi nga xam ne moom la ñu Pape indil boobaak léegi allo allo. waaw yaa ngi may dégg wala déggoo ma. waaw maa ngi bu baax waaw. waaw kay dama ne yéen a ngi ci biir jumaay Serigne Babacar ci jeexitalu burdu bi euh, naka foofu nu mel. waaw alhamdulilah rabbil alamin sëñ euh, Pape Malick na waxtaan wu am mhm. waxtaan wu yaatu waxtaan wu riche. Mhm. mi ngi ci sëñ euh, Cheikh Omar al Fouti Tall radiyallahu taala anhu. Mhm. bi ko yàlla jox waaye diggante ak Sidi Hadj Malick. leeral ak leeral yu am solo waaye waxtaan na waxtaan wu nite. Mm-hmm. waxtaan wu yaatoo yaatoo xamante ne ci mbokk gi. Mm-hmm. ci dëkkandoo gi côté yëpp laal na ko dëgg yàlla. Mm-hmm. Euh, yeesaat na daal euh, xol yi pas-pas yi yeesuwaat na bu baax a baax a baax. yaakaar naa ni daal euh, li mooy. déglu rek question yo xamante ne am nga ko ci. ñu hmm. waxtaan ci sàlla. d' accord jërëjëf Oustaz euh, xam naa question yi du dara lu dul jàngataat discours am bu am solo bi nga xam ne moom la def. Euh, ci wàllu jàngale waaye def ko ci wàllu waxtaan te itam muy lu ama am solo ginnaaw bi nga xamante ni jàngat nañ li nga xam ne mooy burdu bi ba noppi foofu ci biir jumaa ji nu mel fees na del de. waaw fees na del del del wax dëgg yàlla. Hmm. yàgg naa déglu nga Oustaz Alioune Sall si si kii bi <laughs> daa amat na solo. ndeysaan day wane ne rek ñu yi baax yëpp ñoo bokk heure. dëgg la. da da jumaa ji nag wax dëgg yàlla doomi soxna yëpp ñu ngi fi. Hmm. ñu ngi baax ngay dégg ñëpp. tëri diine yi ngay dégg yëpp ku fi nekk teewul tam say njaboot teew na fi. ndeysaan wax naa leen ne jamono bi ñu nii message bi nga xamante nii moom la euh, umma islamique bi yëg. Hmm. tey amatul këru murit amatul tijaan amatul xaadir parce que sëñ Mbàkke discours bi li ci gën a jàng. mooy yëg nañ ne mboolem doctrine yi nga xamante am na yëpp dañoo échoué boo xoolee li sëñ Mountakha mu baax mi réussir ci politique bi nga xamante ni kërul diine yi solution yàgg na tey jógee ñun ñiy xeeb sëriñ si ak ñiy xeeb imaam yi dañoo xamul wala boog liiruñu bu baax a baax euh, sëriñ si seen message ak li yàlla def ci ni leen yàlla def ci xol jaam ci xol nit ñi mm-hmm. parce que bis baa ngi nii tey amul kenn kuñ jox lettre wala ñu jox la soutien ni la jëwal yaa jël say kaar ànd ak say njaboot wut say nag àndandoo ñëw toog ba pare wut kër goo xam fa nga dëkk. dëgg la ba pare ja jumaa ci fees teel boole ñuy xàll ak di wàññi nit ñi. kon da xam ni kon ñoom ñi ñoo ne ci dëgg. ba yàlla léegi nit ñëpp ñu jóg wut si leen. Euh, échoué boobu nga xamante ne nag ñi yëngu ci wàllu politique daanaka genn wàll gi bari dañoo échoué ndax am na loo xam ne léegi mënatuñ ko réussir. Mhm. mënatuñoo réussir euh, toog waxtaan ndax wóolante tuñu. Mhm. ex de confiance amatul kenn ku nekk wóolatoo justice bi wóolatoo politique seen bu yokku rek da nga naan rek ak damay nax. Mhm. léegi li fi des comme dëgg rek mooy l'islam dëgg la. lislaam dong moo fi mën a am kàddu boo xam ne tey bu waxee ñëpp topp ca mhm. te bu ñaanee yàlla may ko dëgg la donc tey loolu tax tey mën na jàkka ji mhm. murit yaa ngi yaa ngi fi xadir yaa ngi fi tey ñi ñëwul tam ku nekk yaa ngi jàkkaarloo sa télévision mhm. waa ngi yaa ngi déglu sa rajo xam ne le euh, nopp yeeg bët yëpp ñu ngi jaawan dëgg la ah, ci tëjtal burd bi ñenn ñaa ngi Medina Baye ñenn ñaa ngi Cenaba euh, ñenn ñaa ngi feneen Mhm. pour wax la rek ne tey l'islam rek moo am ndam dëgg la te ginnaaw boo xamante ne l'islam daaneel na mboolem culture yi fi nekkoon yëpp mhm. muy démocrate yi muy socialiste yi muy euh, capitaliste yi muy marxiste yi ñëpp tey dañoo daanu ndax nit ñi gëmatuñ leen mhm. tey l'islam moo fi nekk dëgg la sëñ macha allah am na solo Oustaz alin jërëjëf ci njàngat moomu noo jàngatee discours sëñ Pape Malick dafa mel ne euh, indiwaat na ko ci niveau yu am solo wax na ci wàllu kër yi waaye wax na ci diggante Cheikh Sidaaji Malick ak njaboot ak wàllu yar ñëw na ci wàllu jaamu yàlla ñëw na ci wàllu gàmmu gi ba pare def na ko ci anam boo xamante ne nii daal euh, daa mel ne sof na ko fa ko mag ña bàyyi woon man njàngat nga ñuy defal ci discours am bi. waaw discours la boo xamante mën a dégluwaat bu baax boo ko di mm-hmm. nga xam ni dara dara dara wul dara soppikuwul mm-hmm. ndax njàngale mag ñi rek mooy leen solo mm-hmm. tey tey bu dee da nga dem jàngi ci dëkk arab yi soo dikkee nit ñi dana am luñ la xoole tey soo jàngee ci dëkk tubaab yi Sorbonne wala fu man leen boo dikkee boo góorgóorlu doo mën a déglu nit ci njàngu mag ñi rek ki nga mën a jàng xoolal tey booy xool exemple sa Saliou Saliou génnul dëkk bi ak yeneen ñoom Tafsir Abdourahmane Gaye ak ñoom euh, Iran Ndaw groupe boo nga xamante ne tey ñu ci bari ñu dëkk bi jàngi tey nit ñi leen bàyyee xel ci seen message ak ni ñu waxtaan ak nit ñi maamu ji Maalik radiyallaahu la noonu noonu noonu la mel jàngale yi muy jàngale yépp daf lay delloo ci sa bopp ba nga xam ni dëgg dëgg kii naxuma ndax dégg nga rek yu mu wax ci ne kër gi jigéen ñi fa la daan nekk mhm. góor ñi fee lañ daan nekk mhm. nga xamante ne amul kenn genn góor bu sañ daan dugg fi ci jigéen ñi nekk mu ne nag am na jigéen ñi xamante ne dañ daan dem euh, di tudd astoog roq ak pend mhm. pour dugg egg fa jigéen ñi nekk te lépp dara lañ ko daawul wuti pour ñaan ay xuuñ wala ñaan ñeex wala luñ lu ñu lekk moo ko daan yóbbu nga gis kon moom Seydi Hadj Malick ni mu sàmm woon nga xamante ne kon góor mën na ko romb sax te du jàppale ne ki romb ni góor la dëgg la donc euh, loolu maandu ci la bokk ndax du hmm. siggu xool la du la ràññee du la seppali du jéem a lijjanti ci loolu nekk jàpp na rek la mu wax nit ñaa nga ca góor ñaa nga fay jigéen ñaa nga fële hmm. loolu tam euh, éducation boo xamante bu raar la mu mu fàttali ma sëñ Fallou mu sëñ Souaïbou hmm. mosuñu waxtaan mu xaw ma wax lu mel ne lii moom même sëñ Souaïbou Mbacké radiyallahu taala mu muy def euh, ci këram danaa am benn miir boo xam ne dafa daan def jigéen ñi fële góor ñi fii xamante ne bu toog ci paree dañ daal di yëg rek yëg bu pare na rek. ñu daal di koy jël. waaw allah danañ la jëlaat ci kanam tuuti fekk jotaay bi gën a dal yal na yàlla defal leen ñaan te sàmmule yooyu itam kontaan nañ lool ci taxawaay bi jërëjëf Oustaz Mbaye ñu ngi koy béggee bu baax a baax jotaay baa ngi noonu kon di toll ci jeexital gi eh, ki nga xamante ne ni mooy dut kenn di yëkkati noonu eh, kaddu yi nga xamante ne moom lañ baaxoo jeexale jotaay bi nekkoon eh, tëjtal burdu bi foofu ci biir zawiya Cheikh Sidaaj Malick Sy radiallahu anhu waaye nekkoon itam ci biir jumaay Serigne Babacar ginnaaw bi xalifa général du tijaan Serigne xalifa Babacar Sy Mansour daaneel ay kàddoom Serigne Pape Malick Sy bu Serigne moom itam daaneel ay kàddu moom la Oustaz Alioune Mbaye doon indi di ko jàngat ak ñun mbokk yi kon dañuy daal di dellu siwaat ci jotaay bi di al bidaaya fas ci ci kanam tuuti bu mbooloo ma wàññi ba gën dal daañu jokkoo jiwaat ak Oustaz Alioune Sall moom itam mu indi am njàngatam ci li nga xam ne moo fa xewoon waaye lu jiitu loolu mën ngeen a ànd ak ñun ci téléphone bi bu leen soobee ci 88 628 98 98 33 841 22 33 33 825 18 30 ñu ànd wéyal jotaay bi di agsi ci waxtu wiñ ko daan yëkkati waaye danañ taaxeerlu tuuti jéem a jokkoo ji ak Oustaz Alioune bu génnee fam nekkoon ndax xawoon naa biire ñu door a li nga xam ne mooy topp ci jotaay bu ama am solo boobu ñu dem jéem ko xooli te ñëw kon incha allah bismillah amal xalqi bi siwaaka inda xululil xaadisi al salli wa sallim daiman abadan di rafetlu teewaayu suñu mbokk daara oustaz Alioune Sall ah, oustaz Alioune Sall dafa am lu ma koy ab bu fukki at ba tey abalu ma ko ah. man daal fukki at fuñ tase oustaz doo abal sa sikkim bi mu mu bañu bañu tasewaat waxee rek mu ne bañu tasewaat waaw waaw <laughs> ah tabaarakallaahu ah, eh, ministre bokk ñu jaajëfal ko baax a baax kàddu yooyu lañ doon baamuwaat ndax sedd na suñu xol di kàddu yi nga xam ne moom la Pape Malick jëmale ci suñu soppe boobu di Oustaz Alioune Sall mbokk mi salaamaaleykum kooku génn na 88 628 98 98 33 841 22 33 33 825 18 30 ay ca حبيبي كالخير الخلق كله ñu door a tàmbali yëf yi nag fas ko yéene wéyal ak yéen doxal li nga xam ne mooy jotaay bi yaa akramal xalqi maa li man aluusu bihi siwaaka inda xuluuli alxaadis alhimami salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu ah soxna Ndey jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar jàmm rek ah maa ngi alhamdulilah naka waa Amérique ñu ngi fi ñu ngi si jàmm alhamdulilah bisimilah ah, maa ngi nuyu di ziar oustaz Alioune Sall. jërëjëf oustaz ah, Alioune dégg nañu waxtaan yi am na hmm. solo macha allah. jërëjëf jërëjëf. ah yal na yàlla dëgëral ah, seen taxawaay. amiin yaa rabbal alamin yokk xam-xam gi. amiin yokk wér rek ñu wéral baat yi. amiin. maa ngi nuyu di ziar tamit waa Sofe rajo Sud FM Diaspora. sëñ ñu président El Hadj Pape Mor Diaw. Hmm, hmm, ndeysaan. sëñ Omar Ndiaye. El Hadji Doro El Hadji Pape Ndiogu Sall ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar waa soppee rajo Sud FM rek en général di ñaanal ñëpp euh, gàmmu jàmm ak salaam te di ñaan nag accident yi néew yàlla na ñëpp dem fi ñuy gàmmoo ci jàmm ak salaam ñibbiwaat ci jàmm salaam fekk njaboot bi yëpp ci jàmm. ndeysaan waaw waaw soxna Ndeye. <laughs> waaw <laughs> jërëjëf kontaan nañ euh, xam naa yow kontaan nga ci burdu bi lool ak taxawaay yi. waaw macha allah am na solo moom. <laughs> jërëjëf ñu xaar gàmmu allah yàlla yóbbal amin amin ñun ak la incha allah. <laughs> jërëjëf jërëjëf Camara jërëjëf ñu ngi koy nuyu di nuyu waa Amérique yëpp di bëgg ci dugam bu am solo boobu soxna nday kamara di wootee foofu ci Amérique. di rafetlu teewaayu suñu mbokk daara oustaz Alioune Sall. Ah, oustaz Alioune Sall dafa am lu ma koy ab bu fukki at ba tey abalu ko waaw ah. man daal fukki at fu ñu tase oustaz doo ma abal sa sikkim bi <laughs> mu mu ne ba ñu ba ñu tasewaat ah, waxee rek mu ne ba ñu tasewaat waaw waaw <laughs> macha allah jërëjëf sëñ Pape Malick si kim bi kon mu abal la ko <laughs> loolu am na solo mbokk mi dafa bëgg a bokk asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw. Mori Diouf la. Mori naka waa Touba Toul. ñu sant bu baax alhamdulilah. allah. ñu ngi nañ taxaw ci jëfandikoo ko rek ñi wax kilifa diine yi nañ wax nañ wax nañ bàyyi xel li kilifa diine wax loolu lu am solo la loolu rek laa si bëgg a jërëjëf am na solo lool jërëjëf suñu moor yi ñoo ngi koy béggee bu baax a baax li nga ci dolli am na solo ñoo ngi lay béggee siwaaka inda xululil la himami salli wa salim daiman abadan على حبيبك خير الخلق كلهم يا سيدي يا أبا زهراء منقذنا مما نخاف من الأضرار والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على habibika xay salaamaaleykum allo waaleykum salaam bisimilah bisimilah sali bi ñuy ziar bu yal na yàlla nangu siyaar salaam amin sëriñ Modou kan Touba Côte d'Ivoire sëriñ Modou naka waa Touba Côte d'Ivoire alhamdulilah ñu ngi si jàmm bu baax macha allah ñu ngi siyaar bu baax a baax am na solo bu baax a di leen di ziare di ñaanal jàmm. amiin yàlla nañu ko yàlla boole defal. ko sàkku ci waa Sénégal yëpp nag. jërëjëf di leen ñaanal jàmm jàmm. amiin amiin baax la ba nekk ku ci mel ni Serigne Dame naa mu ngi teewlu waxtaan wi. waaw ndeysaan jërëjëf. waaw ñun sax lañ ci Sénégal ba Côte d'Ivoire. alhamdulilah ndeysaan. waaw di siyaar soxna Sall bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf. ah depuis booba léegi nag ñuy tànte mais daa mel ni lim bi moo xawoon a xat. lu jot yomb. dëgg la dëgg la ñuy siyaar bu baax a baax la. jërëjëf jëf am nañu suñu borom may damu jàmm ci. amiin amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf borom bi. macha allah jërëjëf kontaan nañ lool. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax te di ko bégee ñu nit kontaan nañ ci dugam bu am solo boobu wanaala alladi yabgi bila wahami ala wa sallim daiman abadan ala الخلق كلهم حاشاكم الدار أن يلفى نزيلكم يحتاج للغير جود يا ملجا الزائم الله يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تحلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير بالخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير للخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلات عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم mawlaaya salli wa sallim daa'iman abadan ala xabibika xayril xalqi kullihim yi ñoo ngi jéem a xaaraale tuuti bala ñoo yëkkati jotaay bi ndax fanweeri minute tegu na ci benn waxtu te heure bi lañ daan wàcc waaye jéem a jot Oustaz Alioune Sall jàngat leen ci kàddu yi nga xam ne moo fa bàyyi ko donte ñu ngi koy jéem a làmbatu waaye jombut fa mu nekk day xat ba du mën a gis téléphone am waaye dinañ jokkoo ak moom léegi ci kanam salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. bisimilah bisimilah. maa ngi sant bu baax. maa ngi lay bu baax a baax di gërëm sa kàddu bu baax baax a baax. jërëjëf jërëjëf. su ngeen kontaanee kàddu wér la fa naan lool macha allah. alhamdulilah. kontaan nañu guddi gi lool. jërëjëf. soo ko natt yëf na ko. alhamdulilah. man la Xaasim Touré maa ngi ote Mbuur. jërëjëf Touré maa ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi sant bu baax a baax a baax waa jërëjëf jërëjëf. rafet na lool te na yarul na teg na ci teggin. ndeysaan. ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a. jërëjëf. ñu ngi rafetlu di mu si suñu tàmmaay bi. saan sëriñ Babacar si Mansour. jërëjëf jërëjëf. dégg nañu yëpp yëpp depuis muy commencé ba léegi. Mhm. ñu ngi dem ñu si def si def mooy suñu rajo. macha allah yal na yal na gën a yàgg. waaw man xam naa nag li li ñu oto bëriwul na waaye mooy suñu rajo moom. jërëjëf jërëjëf. waaw ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ak euh, Seydina euh, Oustaz Alioune Sall. ndeysaan. ak Oustaz Alioune Mbaye. ndeysaan. ak Momar Seck ñëpp ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax. ndeysaan jërëjëf. dafa leen a waxtaanee suñu xol dafa sedd guy guy guy guy. jërëjëf. petite bourde bourde bi daaj bi ñu ko euh, gars yi daaj. Mhm, ndeysaan bi ngay toj rajo bi ngay toj rajo mhm. bi. sama sañoon day kon dafa moom dafay set sama xol guy. ndeysaan moo nekk nii. imaatin ala nabi. ndeysaan mi ngi noonu de. <laughs> laa wala dafa set sama xol guy sama xol dafa set sama yaram di daw. amiin ndeysaan ndeysaan. waaw yan yan yan defal leen jiw. ndeysaan. yan yan defal yan yan la xet leen. ndeysaan. yal na yàlla dimbale leen. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. defal leen li jaaba defal leen mokk bool. amiin yaa rabbal aalamiin. defal leen xaatimata wuus naa. amiin yal nañu ko yàlla boole. defal leen maxfira. amiin yal nañu ko yàlla boole. ci barke Sidina Muhammad. alayhi salaatu wa salaam jërëjëf. jërëjëf oh, jërëjëf waa IYAC ñoo ngi lay jaajëfal baax te di la nuyu di la béggee lool soxna Ndeye Camara ñoo ngi lay waat di bég ci woote bi di nuyu waa Amérique yëpp di la jot li nuyoo sa xarit soxna Seynabou Tall mi ngi lay nuyu tey bég sa dugg boobu nga dugg sëñ Moustapha Sylla ca Paris yow itam ñu ngi lay nuyu baax a baax xol yëpp sedd nañ macha allah jërëjëf Sylla ñu xaar keneen. soxna Diayna ba maa ngi lay nuyu di nuyu waa Forewa yëpp. wa an aliyin wa an Uthman dil karami wal ali wa sahbi thumma tabiina fahum ahlu tuqa wannaqa 88 628 98 98 ahlu tuqa wa naqa foofu lañ leen di xaar ngeen ñëw indi seen i njàngat ci yi nga xamante ne moom lañ doon topp muy jeexitalu burdu bi soxna maam jaara jonn maa ngi lay nuyu baax a baax di siyaare waa kër gi yëpp ñu dem ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله بسم الله اسال واو waaw. maa ngi lay siyaara. jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. di la hmm, jërëjëf. ak tedd bi. jërëjëf. ak sa waxtaanu tedd bi. Hmm. ak ñu jo tedd ñu ma doon jokkoon. Hmm, jërëjëf ci dëkk yi tedd yi. jërëjëf. di ñaan yàlla a teewe. amiin yaa rabbal aalamiin. yow daal yàlla la ca daal boo toogee Alioune Sall ñëpp kontaan. boo toogee foofu di jokkoo Alioune Sall Alioune ñëpp kontaan. boo nekkee feneen nit ñi jox ko yow yëpp kontaan. alhamdulilah. yan yàlla kontaan si yow. amiin yaa rabbal alamin. yan yàlla loolu leen dalal. amiin amiin. xam-xam bi nga xam si ni ci ak jëriñ ci doomu aadama yi taxoon yaa ngi boo hmm. ci gis sa bopp. amiin yaa rabbal alamin. waxtaanee fajar yi rek xam te bopp. Hmm. di la ñaan yàlla na fa la cat ay xarit sa mag ñi nga àndal. jërëjëf. yan yàlla gudd fan nga ànd ak kontaan nañ ci bu baax a baax a baax a baax man bi ma lay déglu damay gëm li ngay wax ak li ngay jàngale yaa ngi koy gëm hmm. gëm naa ko lool gëm naa ne yow li nga wax da nga koo gëm incha allah maa ngi ko dolli remarque bi bi suñ cheikh euh, yéene àdduna yi sant yooyu bi nga ñëwee mënu wax sax ndax jooy hmm. ma xam ne kon préparé woo ko créé woo ko hmm. da nga koo dund ndax daan nga wax ak Sar Aliou ay jalooreem ci jàngat ay mbiram. noonu mhm. nga ko defee ci. loolu loolu sant di la gërëm. jërëjëf jërëjëf gis nañ daal sa taxawaay ci même jàngati mbiri àddina yi sax. Mhm. am loo xaw a xam wax rek xarit na koo xam. alhamdulilah ñu xam posture yi ngi ci taxawee. Mhm. ak ñu li mu leer te doo jërëjëf Mansour yal na yàlla dolli sutura. amiin amiin yal na yàlla dolli sutura. amiin yal na yàlla dolli jërëjëf. ku baax ki maa ngi lay bëgg lool di bëgg ci sa kàddu soñ soññee yooyu ndeysaan nga jëmale te noonu ñoo ngi ciy bëgg bu baax di xaar keneen. حبيبك خير الخلق كلهم أبياتها قد أتان ستين ماميات فرج بها كربانا يا واسع الكرم Oustaz Codé Sock maa ngi lay nuyu te di la siyaare baax di nuyu soxna yi nuyul ma soxna Ndeye Ami sama jigéen ak aawu buuru këram mawlaaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika xayril xalqi kullihim mawlaaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika xayril يا ربي صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم وصل ربي على الهادي وشيعته وصابه من لطي الدين قد نشره man li tay diini xad nasaru Ndar la nekk ñu ngi koy nuyu aaj ma ñu ngi lay nuyu di bég itam ci sa message donte da nga wax wala da ngaa bind sax ah d'accord maa ngi lay bégge baax yaayu nabi yow itam ñoo ngi lay nuyu baax baax di nuyu soppee nabi yëpp tey rafetlu seenu ànd ak ñun ci jotaay léegi tey ñu tekki nag kon daa mel ne jot oustaz taxul mu jàppandi kon ndax euh, daanaka une jot na ba tey ñeent fukki simili daal di tekki dem ci leneen day bëgg a jot. على حبيبك خير الخلق كلهم وبينوا الفرض ñu jaajëfal bu baax a baax mbokk yi doon ànd ak ñun jotaay bi yëpp foofu sax la euh, oustaz di jàppandee ñu daal di koy déglu léegi dugal ko. di rafetlu te waaye suñu mbokk daara oustaz Alioune Sall. oustaz Alioune Sall ngi noonu ci ligne bi. cérémonie bi euh, waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu. ah yaa ngi déglu kàddu yu Pape Malick yooyu. <laughs> foofu foofu sax laay dooree yow xaaral ñu déglu ko te nga continuer. Mhm. wallaay ndeysaan. Mhm. di rafetlu. seen seen doomu bàjjen la. <laughs> macha waaye suñu mbokku daara. oustaz Alioune Sall. ah oustaz Alioune Sall dafa am lu ma koy ab bu fukki at ba tey abalu ma ko ah. fukki at fuñ tase oustaz doo ma abal sa sikkim bi <laughs> mu mu ne ba ñu ba ñu tasewaat waxee rek mu ne ba ñu tasewaat waa ndeysaan waaw masha allah <laughs> oustaz kon mi ngi noonu ñu ngi lay nuyu di la masawu coono noppi ñeen ci burdu bi waaw jërëjëf sëñ ke noppi nañu ci burdu bi ñoo hmm. ngi delluwaat te dal ba masha allah Euh, jaar na fa daan jaar mel na nam daan mel. ndeysaan. Euh, jàng nañu buntu bu mujj bi. Mhm, ndeysaan almuna jaatu wa ardil xaajaat. Mhm. ni ñu ko jàngi woon ak mbokk bi firi ko euh, imaam Ousmane Niang. koy jàng. Mhm. mbooloo mi foo ko takk weesu na ko. burdu bi borom burdu jeexal na suba nag mooy bisum noppalu. ndeysaan. samedi nekk bisu gàmm bi. suba tam xam nga daal di sekk àjjuma incha allah. jom dana xaw a xat dana xaw a xat tuuti kay. Ah, moo tax Tivaouane fi ne dafa fees ba. Mbacke daanaka kenn mu dem kenn allah. waaw waaw. Mhm. jërëjëf loolu am na solo Oustaz ginnaaw bi nga xamante ne teeweeti nga jeexitalu burdu bi yàlla na nga ko yàgg a ah, eh, man njàngat nga ñuy defal nag ci discours Serigne paam maalik yow mi nga xam ne daanaka ñett nit ñoo doxoon sa digganteek moom ci jotaay bi. waaw njàng mi mooy euh, xam nga yàlla may na ko ci wàllu mm-hmm. xitaab mm-hmm. may ko ci wàllu formation wu Serigne Cheikh la mm-hmm. euh, ci xam-xam la ñuy sukkandiku ci la ñuy wax di ko wax ci façon boo xam ne façon bu bu bu daarawu la euh, loolu la ko yàlla may ñëw ci nag ci wàllu bi ñu jaaxalee ci kaw sunu mag ñi ak ni ñu fanki woon li ñu am ak ni ñu bëggee woon li ñu yoroon. Mhm. fexe it bëggoon bëgganteeg salaam. Mhm. ndax ñu mën a mucc fii mën a mucc fële. Mhm. donc loolu loolu daal foofu la accès ay kàddoom jëmale ko ci mu am solo lool. waaw wan ñu ne daal gàmm kon mi nga ñëwati nag. fekk allah daanaka fii suba. nu waajal ko ñun ñëpp ba kenn ku nekk mën cee tibbe ci leeru yonent bi alayhi salaam mhm. mën cee tibbe ci cofeel goo xam ne gi ëmbal nga ko rek nga fex ba cofeel googu yokk incha allah euh, te teg ko nag ci kaw di ko jéem a roy ak di ko a topp mhm. euh, ay njàngaleem di jéem a topp dugam mhm. ndax nag luñ am lu nekk foofu ko amee dëgg la waaw wax ne ci diggante Serigne Cheikh ñu fi nekkaloon ñu mel ni ñoom Lamine Gueye ak ñu ni ñoom ak nga xam ne léeg-léeg xuloo am seen diggante léeg-léeg ñu ñu juba mhm. léeg-léeg ñu waxante ci dara buñ ci jógee ñu xam ne ay lii woon lii la mhm. waaw wax ci suñ Babacar Si ak taxawaayam ak euh, àngaleem ak ñoom doon yare mhm. yooyu yëpp macha allah ñëw na ci jotaay bi. Euh, loolu am na solo oustaz jërëjëf ci njàngat moomu ndeysaan yaa ngi doon ñëw foofu ci biir euh, jumaay sëñ Babacar ci jeexeetalu burdu bi di fekk Cheikh Mouhamadul Mansour. di fi fekk ki nga xam ne mooy sëñ Abdou Aziz Al Amin tey jii nga ñëw fekk fi Pape Malick ñoo ñu wuute ak seeni doom ñoo ñoo ñu ma jot a ñu bokk ak yow jotaay bi toog man njàngat ngay def ci loolu ak euh, liggéeyu mag ñeeg taxawaay beeg ni ñu koy jokkalante. waaw loolu de àdduna suñu mbàkk noonu lay doxee. Mm-hmm. da ngay ñëw fekk kenn muy toog ba mu nga ñëw doo ko fa fekk. Mm-hmm. nga yëg ni yow tam at dana ma sa ñëw doo ñëw. mbir mi loolu mooy yëf yi. allahu akbar ko ci yaramam daw mbaa mu yëg ci dara rek loolu la yëg. mooy ñun mm-hmm. ñii dama ko ñëw at la ñëw doon ñëw. Hmm. yàlla na yéex yàlla na yàgg nag waaye loolu la ñu wax. amiin yaa rabbal alamin. ñu fi fekk léeg-léeg da nga fekk ñaan nga desi doo ko fekk. Hmm. fi daan fekk sëñ Mansour. Hmm. ci jamono yu xaw a yàgg. ba mu yàgg fekkutu ko fi mu fekk xajul al amin. fekk daaw fekkutuñu ko ren fekkuñu ko fi. di fekk Pape Malick yàlla nañu fekk. amiin ñun tam yàlla nañu yàgg ñëw. amiin amiin nañ daan àndale noonu la. tey xam nga saa nekk ci guddi uh, burdu wala boog ñu ne suba la bisum Napoli bi suñ xel yëpp day dem ci Lamine Diop. Mhm. keroog bi ñu ñëwee fii toog ba jàpp nañu war a gàmm. Mhm. suñ téléphone sonné ñu ne lu xaw ñu ne seen suumar boo ma def soog. Mhm. ba faatu na ma nga ca margo ba. ndeysaan. dañ fa daal dañ fi daal di bàyyi gàmm gi rek daal dem dellu Dakar. pour jéem ko taxaw. ndeysaan. donc loolu àdduna noonu lay doxee. dëgg la dëgg la moo tax burdu boo ci toogee lu bari ngay xalaat. lu bari moo ñëw ci sa xel. dëgg la. waaye nag noonu la itam nag ndax mm-hmm. yonent bi alayhi salaam moo toll noonu. Mm-hmm. jar na ko it nag. moom lu ci waay ambaandi to rek yonent bi jar na lu ëpp loolu. dëgg la dëgg la di toog ñu wax la ne ñu euh, wax la ne jikko sàngam la amoon ak jikko sàngam rek. Mm-hmm. jar na jóge fu mën a jóge nga ñëw ci. dëgg la donte nag gàmmu ba ba àgg na laa ngi ci keroog ba gàmmu juddoo ca déwén sa. la coow tambali tàmbali. waree su ko def far nañ ko def. waree su ko def far nañ ko def. dëgg la groupe bi na waree su koo def. ñoom bu ñu du ñu ko def. groupe bi ne na koo def ñu bàyyi leen ñu def ko. Mhm. loolu rek la. jamono ñooyu. maa ngi seetaan benn benn vidéo bu am solo. Mhm. boo xam ne bii si ñebe Dachir Touré bu Fass Touré moo ko ci def. Mhm. di wane ne léegi daf ci wax defoon naa waxtaan woo xam ne. dafa wane ne ñii nee nañ mënees na koo def. ñii nee nañ kenn waru koo def. mu ne ñi ne kenn waru koo def def ko bidaa ni bidaa bu rafet amut. nee na loolu ay xalaat la yoo xam nangu. la tamit nañ nangu ne ñaan bi ñu xalaatee. Mhm. daal di ne mënees na koo def. Mhm. nañ nangul leen seen xalaat. Mhm. parce que bi jamono ñooy. dëgg la waaw bu ci amee groupe buy takk fiir morom ja di ko def yéefal. waaw rek rek fi naan loolu moom day la masalam xilaaf moom seen bàkki kenn du ci takk fiir kenn. masalam xilaaf kenn du ci taf takk fiir kenn. waaw kay am na solo oustaz kon daal ñi gis ne nañ ko def nañ ca nekk ñi gis ne duñ ko def it ñu nangoolante rek te yaatuwante dënn ku ne dem. rek allah. <laughs> macha allah am na solo lool yaa ngi junj léegi sax euh, tey di bisu fukkeel bi guddik fukkeel gi suba ñu war a noppalu. Euh, ah. ginnaaw suba war a nekk gàmmu incha allah ca euh, ah. samedi loolu yëpp ci wàllu programme lay dox boo xam ne dañ koo tëralee noonu ak ci wàllu stratégie am njàngale ne ci biir. ñi am ay fani siyaare war am ay fani noppalu war a am ay fani dundal mu nekk ab woote boo xamante ne àdduna si yëpp ay gàmm waaye ci réew mi ñu baree baree ngi màmm jëm si Tiwaawoon kuy gàmm si mm-hmm. ban comportement nga war a amee oustaz waaw kuy gàmm si ne suñu wàkke comportement comportement bi ngay am mooy dangaa war a yor ndab mm-hmm. innama anta munziru man yaxshaaha la alxuraan waxoon innama anta munziru man yaxshaaha dëgg la ku bokk ci man yax saaha yorul ndab mhm, mhm. ku yorul ndab nag du bu ñuy tibbal ñu yor ndab duñu la tibbal mhm. kon kuy gàmm si day def ab xolam muy ndab bu ñëwee tibb ci yiñ fi wax ci yonent bi yëpp jikko ñu wax ci moom rek nga tibb boo demee tàmbalee jëfe feese rek léegi tey nga bokk ñu gën ci nit ñi dëgg la waaye bu fekkee nit dafa ñëw ndax Cheikh El Hadj Malick wootee daf ne isa lam yakun naxwa xaraami udoolu mooy kon koo ci xam ne boo fu ñëwee lekk ceere la fi indi mhm. woowu la mhm. koo ci xam ne ñëw fi def leneen lu ko la mhm. woowu la isa lam yakun naxwal xaraami udoolu kon ki nga xam ne moom day fexe moom tam bu ñëwee rek tibb ci leer yeeg ñaan geeg ñim daawul gisante di gisante ñoom ñim namoon te gis leen ak yu ne demeeg waxtaan yeeg waaraate yeeg conférence yeeg yëpp macha allah mm-hmm. ñu tam bu soob yàlla bu subaa ni ñu ko daan baaxoo ci defee bu ñu jullee takusaan ba noppi mm-hmm. def seen waxtaan ci daaru salaam ca yoonu mboora wa ca wetu tribunal ba mm-hmm. kër ñoom Moxtaar Cissé suñu selil bi nekk fii incha allah dëgg la waxtaan ak ñoom ci liggéey bi ba noppi waxtaan ak ñoom nag ci yonent bi ak muñ yonent bi ak muñ. macha allah waaw maanaam ci loolu lañ war a waxtaanee suba ak ñoom. ci kàttanu borom subhanahu wa taala. macha allah yal na ko yàlla mottali. Eh, amin am na solo oustaz xam naa ni ñuy def rek mooy bàyyi la kon nga dem noppalu ndax itam suba bis boo xat la danañ xëy jokkoowaat ak yow ci alkitab incha allah. d' accord bu ñëwee jaajëfal yow tam di la coono beeg jërëjëf wéetaay beeg fanaan bi tubaarkàlla euh, liñ ci jot fa rek néew xam ba na ko daan defee jërëjëf jërëjëf di jaajëfal suñu docteur Baye Omar ci bëccëg bi ñëw ñun la yóbbal ndeysaan jënd leen leen nii def leen nii ba am leen coono mm-hmm. événement bu jot bu lay def jërëjëf ndeysaan waaw yàlla xam na ko ñu ngi ko ci jaajëfal baax Baye Omar macha allah ko ci encouragé ndeysaan di ñëpp noo ko bokk waaye ni mu koy doxale dafa na ci ñun neex na moom kay coono bi sax méttiwul waaye wéetaay bi moo metti bu ma xoolee gisuma la daal fii day mel ne ñemee ma fi rek xam naa dinaa wut sa photo wekk ko fii <laughs> wallaay ndeysaan saa yu raay incha allah incha allah jërëjëf oustaz kon ñu bàyyi la kon nga dem noppalu tuuti rek bu ñu xëyee jokkoo yow ci alkitab nga jox ñu ban jikkoo lañu war a jël ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ren bu subaa bu xëyee nga ñu koy wax incha allah <laughs> sukran jërëjëf oustaz Alioune jërëjëf mbokk yi ñuy topp ñoo ngi koy jaajëfal bu baax baax di ko nuyu ma nga foofee ca Tiwaawoon mook oustaz Alioune mbay di leen bëggee yéen itam laata umma ya xalli taybata laata umma moom lañ doon xaaraale ba une jotee ba teg fanweeri simili ak léegi fi mu nekk nii nag euh, daanaka ñaari waxtu fukki minute moo ko tee jot ci guddi gi kon ku ne xam na ne euh, mi ngi bëgg a guddi ci yéen ak noonu waaye jeexagut lu jiw a jeexut jógu fa feeg bët a sebbi dañuy daal di def rek tàggoo bu du tàggoo di daal leen tafsiru quraanul karim bi ñu amoon ay bis gi ñu génn buñ ci noppee ànd ak ci alkitab ànd ak ci euh, Euh, li nga xamante ne ni mooy rijaalun xawla rasul buñ ca noppee ànd ak yéen ci arrasidun noonu la ñu wéyale jotaay bi ak yéen ba 5 heures jot ñu déglu alxuraanul karim 5 heures 30 daañu ànd ak yéen ci seen jotaay boobu di almisbaax mbokk yi kon ñu sant leen gërëm leen jaajëfal leen bu baax a baax ñaanal leen delluwaat di sàkkuwaat ci yéen ñaan ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu sàmm euh, defal ñu tawféex